يا خير طيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد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 julli ci yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi nuyu mbokk yépp ci nuyoobu islaam bu màgg bi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi di dellu di ndokkeel jullit ñépp ci weer wu tedd wi ñu nekk mu shahru ramadan al di ñaan suñu borom subhaanahu ni ñu ko duggee ci bismillahi rahmaani rahim ñu génn ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ni ko muassasatul Wafa bi xooxel imaan baaxoo amal rek ci jotaay yu am solo yi nga xam ne dana koy amal ci diiru weeru koor wi bés bu nekk rek jagleel ko ab thème boo xam ne bu amal solo nit ñi lay doon waaye itam tànn koo xam ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllu thème boobee ngir mu dikk fii ànd ak nun baaxee nu li ko suñ boroom jagleel ci wàllu googee dafa kon tey jii di altane di fukki fan ak ñeent ci koor gi ñu dalal suñ mbokk mu tedd mi di Cheikh Ahmadou Bamba Thiam Cheikh Ahmadou Bamba Thiam bàyyi ko ba dakaar moom la ñu dalal tey jii ci altene fukki fan ak ñeent ci weeru koor bi tem bi nga xamee ne nag moom lañ ko tànnal mu fas yéene cee waxtaan ak nun day thème bu am am bu am bu am am solo lool te jamono laaj ko itam te moo di intishaarul ixtiyaalaat fi wasail ittisaalaat ci tënk mooy njaaxum yi xam ci jumtukaayu jokkuwaay yi maanaam njaaxum yi nga xam ne jamono ji mi ngi am ci wàllu informatique ci internet bi ci réseaux yi mooy ay xeeti njaaxum yoo xam ne yu bare bare mi ngi am dal ay nit mu bëgg cee waxtaan ak nit ñi nag ngir yeeñ ci nit ñi xamal leen ci ba nan lañ ci jariñ ba duñ ci mën a loru kon loolu lu am am solo la itam bu jamono itteewoo itam la ni ko baaxoo defee itam balaa ñuy jox Cheikh Ahmadou Bamba Thiam ñu tënkal leen as tuut ci ay jaar-jaaram moom mii njàngum cycle première am mi ngi ko defee ci dakaar ginnaaw bi nag bi nga xamee ne euh, noppi na ci loolu ci la dem ci lycée technique Maurice Delafosse foofee la jànge ba am bac e ci wàllu technique ginnaaw ba bu mu amee bac la fa jógee dem ci université Cheikh Anta Diop faculté de sciences maths physique MP foofee itam jaar na fa bim mu fa jógee nag la génn réew mi dem ba états foofee fala la eggalee am njàngam du ci bari ci fi ñu wax Silicon fale California foofu nga xam ne xeeti jumtukaay yi lëmbe jamono bi yi ci ëpp mbaa yépp sax foofee lañ juddoo lu mel ni Google ak Yahoo Instagram Facebook ak yi Apple yooyu yëpp ci Silicon Valley California googu foofu lañ juddoo moom mii foofee jàng na fa liggéey na fa at yu bëree bëri fa la amee itam diplôme ingénieur informatique foofee ca Silicon Valley California fa la amee ingénieur diplôme ingénieur informatique waaye dafa la defee master of business administration gestion des entreprises loolu itam foofee ca Silicon Valley California fa la ko defee ginnaaw ba nag ba fa jànge ab diir liggéey ba itam diir bu yàgg la fa jóge dellusiwaat fii Sénégal continuer ci liggéey bi ci wàllu ay diplôme itam am na doctor en relation internationale et diplomatie kon docteur la ci wàllu boobu waaye itam expert la expert cybercriminalité ak cybersécurité criminalité maanaam ñaawteef yi am ci internet bi ak technologie nan lañ koy saafara ak naka lañuy ñuy def mucc ci loolu mooy criminalité loo tam expert la ci ak wàllu cyber sécurité te mooy aar technologie internet bi ak système de formation bi yooyu yëpp am na ci euh, expert la ci waaye itam ginnaaw bi euh, yooyu yi nga xam ne mooy cybercriminalité ak cybersécurité da koy jàngale di ci liggéey am na ay université yoo xam ci ne ñu ngi ko fiy jàngale ak ay école défense ak sécurité yu bari moom mii mooy leen di former ba ci wàllu police ak ñu bari bari ba ci sax cadre administration yi nga xam ne ay kilifa lañ yu mag suñ bëggee yokk seenum jàng école bi ñu dugg di fa jànge moom mii ci wàllu euh, cybercriminalité ak sécurité moom mooy leen yor moo leen tàggat am na it ay conférence yu bari ak ay waxtaan yoo xam da koy def daje ak nit ñi di leen yee di leen gindi ci wàllu internet ak réseaux sociaux yi ak technologie naka la ñuy fexe ba mantee jariñu te doo ci loro te loolu am am solo la ndax lépp loo si rek dafa am ñu ci mën a jariñu ak ñu ci man a loroo waaye moom mi dañ fu mu fu fépp fu mu yaakaar bu ko waxee dañ ko déglu rek ci euh, mbooloo yi ci école yi ci bërëb rajukaay yëpp dafay dem di waxtaan nit ñi di leen yee ci mbirum wàllu technologie ak waa ressources yi kon loolu bokk na ci ay yëngatoom ci aslaf ci li ko mën a tënk rek ci li nga xam ne mooy ay jaar-jaaram xam naa itam waxtaan wi képp koo xam ne bëgg na koo topp bërëb yi ñu bëgg a lim yëpp ay bërëb la yoo xam ne si ne képp ku bëgg topp waxtaan wi boo fa demee ko mën a am bu ci euh, rajo yi bi FM dana ko teg waxtaan wi bu zéro heure jotee ICAP FM dana ko teg 9h RTS Touba dana ko teg 9 Benno FM dana ko teg 17h Lamp Fall FM dana ko teg RFM da koy teg Zik FM da koy teg 15h i rajo da koy teg 0h Bawal Média da koy teg 14h du ko def direct 18h ci rajo bi ak YouTube bi ak Facebook bi. Sud FM itam da koy teg Walf FM da koy teg Leer gi FM Louga dana ko teg bu 9h jotee Fawzu FM da koy teg bu vingt heure jotee Touba TV. guddi gi ak suba gi yëpp da koy teg ak Lamp Fall TV yi euh, sept heures du matin da koy teg itam barab yi nga xam ne ko télévision yi koy jàllale ginnaaw bu waxtaanu jàlle itam bokk na ci yëgle TV dana ko teg midi jotee alxusna TV da koy teg Cheikh Ibra Fall point com dana ko teg xisbu euh, rahman ci youtube bi dana ko teg rafa TV dana ko teg muallim info da koy teg yi nga xam ne nag nañ koy def direct nga xam ne fi mu toll nii ñu ngi ko ànd ak ñun ci jotaay bi bokk na ca mooy Bawal Média da koy def directe As-Samadiya da koy def directe Touba Vision da koy def directe Alxadimiya xibaaru réew mi Al Wafa Daaru Muxti officiel YouTube bi ci Facebook bi yëpp da koy def direct ba tey bokk na ñu koy directe mooy Touba Monde bi TV kooku dem da koy def directe ba tey bokk na ci DBT te mooy daaray borom Touba TV nekk ci Louga moom tam da koy jàllale kon yooyu ay bërëb la yoo xam ne képp ku bëgg dopp waxtaan wi rek boo fa demee da ko mën a am ba tey képp koo xam ne am nga laaj bu jëm ci thème bi sëñ bi doon waxtaan itam boo ko indee rek incha allah bu sëñ bi noppee danañ ko jox mu tontu ci kon ñu ngi ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Thiam suñu borom defal ko tawfiix te defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. sama mbokk yi maa ngi leen di euh, ziare bu baax a baax euh, di jiite ziar bi euh, sëñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides di ziar sëñ Bass Anta Niang xalifa Daaru Muxti di ziar kilifa yoon bi yëpp di ziar tamit sama buntu si sëriñ Touba sëriñ Hamdatu Mbacké mu sëñ Sohaybou di ziar kilifa yi nga xam ni Euh, sama invitation sama ñëw fii si ñoom si ñoom la jaare euh, jiital si sëñ euh, sëñ Moustapha Mbacké ñoom sëñ Cheikhouna sëñ Bass ba egg si ci sëñ sëñ Mouhamed waaw sëñ ñaari sëñ Cheikhouna la sëñ Cheikhouna sëñ Cheikhouna Mbacké ak sëñ sëñ Bass Mbacké ak sëñ Mouhamed Mbaye Mbaye ak képp koo xam ne tamit amoon nga yéene ma def lii bu yàgg ku mel ni sëñ sëñ Sonia Diop ci la bokk Euh, sëñ Lamine Mangane tamit ak euh, ñëpp ñoo xam ne euh, samay mbokk lañu nekk fii nekk fii daaru ndaxte fii suñu suñu kër la maa ngi doon waxtaan léegi ak sëñ naa ma ni ko sama am naa ak sama maam boo xam ne bu sant joxaane la sant boo xam ne ñu bëri xam nañ ko fii taalibe Cheikhu sëñ maam Thierno eh, yi la ñu àndoon eh, jógee eh, Mbàkke Kajoor ñëw fii sañ sañ si dëkk bi ak tamit man waa Përi la xam na am na fi ñoo xam ne xam nañ Përi Njaay fii ci ginnaaw ginnaaw ci Maxa jamono yi sëñ bu mag bi kanfoor yu bari fa lañ nekkoon sama maam fa la juddoo si sos dëkk bi la bokkoon ak sama mbaay ak yëpp ba am na setu borom yi yoo xam ne foofu lañu jàngee daara mën nag lim kenn rek ku mel ni sëñ maam Thierno euh, Daaru Marnaan nga xam ne moom euh, doomam la ma la ma jàppee ndaxte sama maam bu jigéen euh, si seen ndeyu daaree la bokkoon foofu donc li ñu boole bëri na fii suñu suñu suñu kër la ñu mën naan ñu ngi lay dalal waaye mel na ni man maa lay dalal tey <laughs> waaw di di si kontaan loolu di ci bég lool sëñ Cheikhouna defe naa na lépp ci wàllu ci wàllu jaar-jaar. Euh, bu ngeen euh, seetee ne euh, jamono yëpp dafa naa mën nañ ne ñaar fukki at yi yi yi weesu internet bi dafa lëmbee dafa lëmbee jamono dafa naa soppi na lu bëree bëri bëri mën naa rek man bu ma jëlee misaal ci sama bopp ñun bi ñuy soog a dem Amérique daan bëgg woote téléphone Sénégal boo bëggee woo say say say sa sa waa kër danga nga daan jënd carte carte téléphone yi nga xam ne jamono boobu carte téléphone mën naa ne boo ko géndee eh, ñaar vingt dollars eh, ñaar fukki si wàllu dollar eh, boo ko defoon dina mët dina weesu ñetti junni te boo yëkkati sa téléphone daanaka da ngay woote boobu ay cabine téléphonique moo amoon def naa cabine téléphonique ñi nga xam ne yàgg nañ fi xëy na dinañ ko xam fa nga daan dem di woote te daanaka boo boo boo wootee boo nee salaamaaleykum salaam rek daanaka genn wàll gi day dem nga gis ne léegi. si téléphone ni mu ni mu ni mu ni muy euh, bëree whatsapp bëri lépp bëri am na kër yoo xam ne seeni mbokk yi nekk ci diaspora bi si àll bi bu ñu wootee duñ leen jël ndax dañ naan dañoo late dañu mën a woote ne bu ñu demee ba loolu am nga xam ne jamono soppeeku na nga xam ne léegi mën nga nekk fu nekk si àdduna bi euh, dara du la du la raw lii rek euh, misaal la lii jotaay bii defe naa bi ngeen koy soog a tàmbale lu ëpp ñaar fukki at yaakaaruma ne jumtukaay yi amoon na te yomb yomb boo xam ne képp ku nekk si àdduna bi dina si mën a jot donc yëpp yëpp ay ay ay ay yokkute la te dama koy wax saa su nekk euh, wàllu euh, jumtukaay xarala yu bees yi ak bu mu mënti nekk moo xam internet moo xam téléphone euh, li nga xam ni moo moo moo ko taxoon moo ko taxoon na jub dëgg dama koy wax saa su nekk dañuy gis ne ñoom ñi nga xam ne ñu ëpp alal ci àdduna bi ñoom ci lañ bokk waaye ñoom biñ koy sos alal taxawoo ñu sos ko ndax léeg-léeg nit dina sos dara ne ah lii de maa ngi koy sos fas yéene si liggéey alal waaye ñoom ñi ko sos alal taxuwoon ñu koy ñu koy sos dañoo gis benn euh, lu nit ñi soxla ñu tax mën naa leen jox rek euh, misaalu Google Google fi mu fi mu tàmbalee mooy euh, ñoom dañoo toog gis ne nit war na toog si àdduna bi lu mu soxla rek tàppee ko rek mu egg si bépp information boo xam ne yittewoo na si àdduna bi rek war naa am foo xam ne bu ko fa tàppee rek da koy tàpp rek mu daal di foofu la tàmbalee ñu commencé liggéey donc man mi di wax ak yéen euh, wax maa ngi koy nag ñun bi ñu xam euh, Google 48 euh, emplois la ñu amoon mu ci yoon juróom fukk te léegi boo seetee àddina bi ay millions ñu ñu ngi liggéey si si si boo xam directement wala indirectement ak lu jëm ci ci wàllu Google ñoom dañ ko doon sos rek ngir jàpp ne am na lu ñu war a saafara ci dundu doomu aadama ñu saafara ko bi ñu ko defee ci la xéewal ñëw ñu am ci alal bu dul jeex. ñaareel bi rek mooy Facebook ñoom bi ñuy soog a tàmbal ñoom leeral nañ ko euh, dañuy toog rek nekk si université bi jàpp ne euh, war nit ñi war nañ di mën di di di di jokkalante te kenn du dem si néegu jàmbur xam fi ngeen rek ngay toog rek am foo dugg rek jokk ak ku la nekk université bi te doo te doo jóg xalaat bi foofu foofu la jóge ñu def ko mu sotti léegi beneen université soxla ko ñu defal ko ko xëy rek àdduna soxla ko gis nga fi mu leen indi léegi ñetteel bi may bi may bi may euh, daanale rek mooy euh, ñeneen ñi nga xam ne tamit ñoom ñëpp ñoo ñoo ñoo bokk liggéey bi euh, jëm internet tamit li ko tax a jóg loolu la xam nga léegi dégg li ñu ne internet bi waaw dafa bëri ay ay saaga bëri ay yàq ay sos xam naa dina ci ñëw ci kanamee ñu naan lan moo tax loolu am waaye internet ñi ko sos bi ngay sos loolu ci la bokkoon ndaxte bu ma leen joxee misaal bu ndaw rek képp koo xam ne am nga xalaat bu rafet boo bëgg génnee balaa internet di am ñett moo amoon moo xam euh, télévision moo xam rajo moo xam journal mooy presse écrite li ñuy bind te ñett yooyu yëpp yu si ëpp jamono lépp ñoom ñëpp sax jamono boobu ay doomu aadama ak ay ligu ñoo ko moom xam ne lépp loo xam ne neexu leen rek du fa du fa jàll léegi yow boo amee xalaat boo xam ne dafa la dafa la da ko bëgg génnee wala xam-xam bëgg ko tasaare si si àdduna bi amoo woon beneen pexe léegi na ay nit dajaloo moo xam ay ingénieur ñi nekk ay ay borom xam-xam comme yéen ñi nekk ay philosophe ñu dajaloo ñoom ñëpp seen xam-xam dajale ko mu indi eh, benn si nit indi internet si la bokkoon moo tax bu ñu toogee naan internet bi dañu si nekk di wax li ñu seen xalaat ak yëpp loolu li ko taxoon jóg loolu la xëy bi ñu demee ba jamono soppeeku la ko nit ñi soppi waaye li ko taxoon jóg lool la woon gis nañ ne aussi wàllu jumtukaay yi bu mën si nekk bu mu nee xarale yi rek te internet dugg na si réseaux dugg na si téléphone dugg na si balaa ñuy ñëw ci ci ci ci musiba yi ak ak ak ak ak yi nga xam ne moom moom lañ si war waxtaan si baax na aussi ñu xam li ko euh, yu baax yi nga xam baax na ci man gis naa ay ay xale yoo xam ne jamono bi wax ak yow nii seen juróomi at mën nañu wax ci ci chinois mën nañu wax ci anglais mën nañu wax ci français ba noppi olof bi nga xam ne moom lañ leen yare te loolu li ñu si xam lépp lépp lépp lépp ci ci internet bi lañ ko jàngee gis naa ay nit yoo xam ne. Euh, ñu ngi ñu ngi waaja a wàcc alxuraan fi mu doon fi jamono yi te mosuñu gis gise ak ki leen di jàngal jàngal bi yëpp ci kii bi la ci réseaux sociaux moo xam ci whatsapp euh, fa la ñuy jàngee fa la ñuy taree fa la ñuy defee lépp te mosuñu gis ñi nga xam ne ñoo leen jàngal am na ay doomu aadama yoo xam ne dañuy dem ba ba ba nekk mukalaf ba nekk mag soog a euh, jaamu yàlla soog leen yitteel xam nga gis ngeen dañuy gis benn nit boo xam dina am fanweeri at di laajte ni ñu sangoo set xam nga dina dina bi te amoon ay jamono yoo xam ne xalaatuñu xeet nit yooyu di am xam-xam yu demee noonu léegi bi internet bi ñëwee ba léegi euh, yooyu yëpp mën nañ ko xam te te te duñu te duñu te duñu te duñu duñ ko laajte fenn waaye nag am na musiba yu si am yoo xam ne léeg-léeg aussi nga si dugal dugal ñoo xam yoo xam ne du dëgg te te te duñ si kii beneen bi tamit bi may mujjee rek mooy wàllu euh, communication bi nga xam ne moom lañ am nii ñëpp xam ne léegi euh, téléphone moom ak jokkoo moom yomb na yomb boo xam ne macha allah connexion rek ngay soxla pour pour am ko donc avantage yooyu yëpp te suñu bureau yi ak euh, ñi nga xam dañuy euh, liggéey ci euh, informatique bi ak ñi liggéey si gouvernement ak ci état ak fépp xam nañ ci dara léegi nag bi bi yooyu yëpp amee yooyu ma wax yëpp te mën naa toog bu suba di ko lim comme paaka la rek dañu paaka ñaar nit mën nañ ko jëfandikoo ki nga xam ne daf koy jëfandikoo ngir lu lu baax mooy suñu mbokk jigéen ñi koy jël si togg si waañ beeg yooyu waaye am na tamit yeneen doomu aadama yoo xam ne moom lañu jëfandikoo di ci di ci di ci di ci rey nit bu bu fekkee dañu mën a egg si fi ñuy wax extrême euh, jëmm ji nekkul ci euh, paaka bi loraange bu mu am wala njëriñ bu mu am waaye problème bi mooy ki nga xam ne moom la nekk ci ay loxoom internet tamit noonu la mel ki nga xam ne moom la nekk ci ay loxoom kooku mooy responsable bi nga xam ne bu amee lu bon ci moom la bu amee lu baax tamit euh, ci ci moom la léegi nag euh, euh, ni mu bëri ay ay ay avantage comme ni ñu koy waxee noonu la bëri ay ay musiba xëy na bëri na lool lool lool lool waaye ci waxtu ak li ci topp li li ñuy ànd ginnaaw xool yi nga xam ni man sama expérience fi man dama bëgg euh, mu bañ a nekk waxtaan boo xam ne boo demee ki téere yi di ko fay fekk ndaxte daanaka ku dem Google tapé internet di nga ko fekk damay wax comme bu fekkee expérience bi nga xam ne moom laa am di ko di ko di ko mu ki sama wàllu liggéey mooy ci sama wàllu jàng ak sama expérience boo xam ne dama koy euh, yaatal ba nga xam ne képp koo xam ne dégg nga ko tamit euh, di nga si mën a jëriñoo euh, bi nga xam ne moom moo si moo si jiitu ci ci ci ci ci man am na tubaab muy woowee narcissisme narcissisme bu fekkee da nga koy tënk ci ci ci ci ci olof mooy da ngay dem ba da ngay da ngay da ngay da si tubaab da ngay da ngay da ngay fan sa bopp olof bi noonu la si tubaab da ngay fan sa bopp dem ba nga xam ne yow da ngay da jël sa bopp yóbbu ko foo xam ne yow eggoo foofu wàllu jumtukaay bees yi yóbbu na nit foofu xam da ngay ñëw nekk euh, di jàng dem ba teg si bopp sëriñ wala nekk borom xam-xam bu ndaw dem ba teg sa bopp borom xam bu mag a mag wala nga nga xaw a am noo defaroo rek euh, changer euh, soppi kii rek jumtu kii sa kanam rek ci ci ci ci photo rek ak ci ay outil ay Facebook ay photoshop ak yooyu mu rafet defal la rafetaay boo xam ne yow da ngay dem ba defe ne yow noonu nga mel. noonu nga mel c'est que di nga li li li li li nga li nga li li ñu transformé ci yow ju jaarale jumtukaayu xel yu bees yi da nga dem ba defee ne yow noonu nga mel xam nga nga dem si internet bi euh, dugal benn vidéo xëy am 300000 euh, vues rek da nga jàpp ne yow star nga jàpp nga ne yow àdduna bi ñëpp xam nañ la jàpp nga ne lépp loo xam ne ñëw euh, na sa bopp rek da nga ko war a wax mu mu génn ci àdduna bi donc loolu dafa daf ko daf daf ko indi léegi nag day dem ba nga xam ni loolu da ngay dem ba gëm ne dëgg la alagu dëgg dañuy gis ma gis naa koo xam ne euh, juróom euh, juróom-ñaar fukki atam weesu na waaye ci ci ci ci ci ay photo profil day def foto yi nga xam ne moom la am bi mu amee ñaar fukki at def léegi moom dem na ba ba jàpp ne moom xale la léegi ndaxte saa yu xoolee boppam si internet bi rek xale lay jàpp boppam ñi nga xamante ne xamuñu ko di ko xool tamit xale lañ koy jàppee donc yooyu yooyu dafa dafa am ci ci internet loolu da lay yóbbu foo xam ne eggoo foofu beneen bi nga xam ne tamit euh, am am na ci mooy mooy perte temps perte mooy mooy jot bi nga xam ne nit ñi am nañ ko ba noppi di ko yàq ci ci ci ci jumtukaay yi moo xam ci téléphone yi moo xam ci réseaux sociaux yi moo xam ci internet moo xam ci lépp loo xam ne dafa jëm ci xam-xam euh, xarala yu bees yi te ñëpp xam nañ ne jot temps dafa dafa dafa am solo si doomu aadama jot dafa am solo doomu aadama yi loolu moo tax ma nga saa su nekk euh, xam nga si àdduna bi ñen ñoo xam njëriñu jot jot mooy mooy américain yi moo tax nga dégg ñu naan time is money jot boobu boo gisee ñu xam njëriñ bi mooy bu ñu la jëlee ngay liggéey xam nga da liggéey euh, juróom-ñetti waxtu ci bis bi ngay liggéey mooy li nga xam ne ñoom ño mooy contrat bi nga xam ni moom gis ñi ak ñoom mooy juróom benn waxtu juróom-ñetti waxtu yi waaye gis na juróom-ñetti waxtu yooyu benn euh, minute bu si tegee la nga la lañ la war a fay dañ koy dañ koy dañ koy doublé dañ day bu fekkoon par exemple ñu ngi lay fay euh, ñaar ñaar téeméer waxtu bu jot dañ la fay ñetti téeméer lañ lay fay ndax jàpp nañu ne benn waxtu bi nga xam ne moom nga teg ci ci li nga warlu woon ak ñoom yow yaa ko moomal sa bopp donc soo ko génnee jox leen ko rek dañ lay war a jox dañ la war a ak xam moo lay wan ne ko jot dafa dafa dafa am solo léegi nag di nga gis ñoo xam ne euh, gis naa ay nit ñoo xam ne ñoom bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yeewoo bu ñu yeewoo seen kër balaa ñuy jóg seen lal li ñuy njëkk def mooy mooy mooy taal seen connexion moom la ñu njëkk def balaa ñuy balaa ñuy jóg sax si bi te li si ëpp gis nga boo boo xasee ba ba jël connexion bu daal di koy taal boo deful ndànk di nga di nga yàgg si ko lal bi ndax di nga fa gis loo xam ne euh, di nga ko war a xool wala nga war a ko déglu wala nga war a war a ko tontu wala yow sa bopp nga war ko xam léegi nag noonu lañ koy jàppee jàpp jàpp ko ba ba tëdd jot gis naa ñoo xam ne ba ba bu ñuy tëdd téléphone bi moo leen di li ñuy wax euh, ni ñu lay yeetalee ni ngay yeetalee xale sa doom ñoom téléphone moo leen ak ak ak di yeetal moom dañuy dañuy dañ koy yore ba ba xam ne ci li nga xam ne nit ki day day day yeewu suba ba ba ngoon jot nekk si internet bi suba ba ngoon léegi moo xam da ciy def lu baax moo xam da ciy def safaan bi te loolu dinañ ci ñëw après te boo gisee loolu loolu loolu loolu loolu yéeme mooy euh, euh, euh, jot am na benn kilifa gu ma doon waxtaan ci fan yi passé mu ne moom lan lan moo ko jaaxal léegi ci ci jataay yi jataay yu bari mu ne bu yàgg da ngay gis ay ay jataay dagale ay ay ay ay ay ay nit koo gis mu ngi mi ngi mi ngi mi ngi durus moo xam mu nekk ci alxuraanam wala moo xam ci mu nekk ci ci ay xasdaam wala moo xam mu nekk si ay lawraatam wala moo xam ci nekk ay kur ci kurusam mais léegi jotaay yu bëri bëri yooyu dem bu ngeen ko seetluwee jotaay bi ñu si bëri doon nit ñi ci ëpp waaye ñu si ëpp ñu ngi si ñu ngi si TikTok bi wala ci Facebook bi wala wala ci ñu xool seen seen seen kii euh, seen euh, seen statut yeeg yooyu da leen seetlu loolu rek mooy ne léegi sax léegi jaamu yàlla bi sax léegi da nga koy waaj dañu gis léeg-léeg nga gis nit julli seulement rek di muy njëkk de mooy jël portable daa daa di xool da koy gis si jàkk yi xëy nit ki lay dem mooy narcissisme bi may waxoon sànq da ngay dem da nga koy def yow sax doo doo doo ko tey loolu mi ngi yàq lu bëree bëri bëri bëri euh, beneen bi mooy euh, ci wàllu euh, wàllu boobu ci ci wàllu boobu yëpp bu ma nee xarala yi bi damay wax toujours saa su nekk mooy internet bi ak ak réseaux sociaux yi ak ak ak téléphone yi da ngay gis ne ci ci ci ci ci ci ci wàllu boobu mooy profil yi nga xam ne moom gis si internet bi bu mu munti nekk boo xam profil Facebook wala profil WhatsApp wala profil bu mu munti nekk rek euh, li nga xam ne moom moom la ci nit ñi di def jamono yi te yàgg na mooy créer faux profil léegi faux profil moom li li tax nit war ko créer moom bari na parce am na nit ñoo xam ne bugguñu ñu xam ne ñoom seen bopp ñoo moom compte bi defuñu ko sax pour ndax kenn waaye dañ koy def rek daal di jël photo jàmbur wala photo ku munti nekk daal di ko fay teg pour pour rek bañ ñu xam ne euh, ñoom la. am na ñoo xam ne tamit euh, dañ koy def ndaxte ñoom ñoom ñoom ñoo ko tey waaye waaye problème bi nga xam ne moo am ci ci ci faux profil yi ñu baree baree baree baree bari ci la jaar ngir ngir nax nit ñi parce defe naa képp koo xam ne mu ngi fi toog wala ñu ngi seetaan defe na nga gis nit koo xam ne mësul am problème ci ci ci ci wàllu bopp man euh, ñu bëri bëri ñoo xam ne bu ñu amee ay problème si internet bi wala ci demee demee noonu si man la ñuy ñëw donc ñu si ëpp dama leen si taxaw euh, comme ni ma ñu ñun duñu police duñu gendarmerie waaye xëy na am nañ lu ñu si xam loo xam ne mën nañ la teg si yoon boo xam ne xëy na bu egsee si ñoom liggéey bi dana dana yomb te tamit dana mën dalal xel ki xam ne moo am jafe-jafe boobu ndax léegi day am jafe-jafe bi doo gis ko ko ci waxal donc loolu moo tax ñu ñu ñu ñu mën ci wax loolu bëree bëri bari beneen bi tamit mooy di si gis ñoo xam ne ci foo profil yooyu seeni musiba yu bëri fa fa lañ jaare man gis naa ay ay nit yoo xam ne jamono bi wàcc nañ liggéey wàcc liggéey faatu te xam naa ni li seen faatu fi mu jógee ci ci ci ci réseaux sociaux yi la la la la ci la bokk xam ne suñu borom mooy faat waaye ci li ko jaare comme ni ñu naan kii tawat moo ko faat wala leneen ak leneen ñoom li leen faat ci la bokk ndaxte da nga si gis koo xam ne day am jafe-jafe euh, ñëw ci yow normal ngeen waxtaan mu wax la problème bu garaaw a garaaw a garaaw nga nga xëy gis ko rek mu soppeeku nga xam ne kii feebar bi nga xam ne moom moo moo moo tax mu soppeeku nii ci ci ci ci ci li ko dal ci la ci la bokk nga xëy bis rek ñu la wàññi wàññeeku na xëy na ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ko xam ñoo xamul euh, li mu li mu doon dund ci àddunaam di nga ko xam mais yow mi mi fekkee démb di nga xam ne li li ko fàcc donc loolu laay wax saa su am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi faat ay doomu aadama te xamuñu ko nit dañ jàpp ne pour faat doomu aadama da nga koy da koy njabar wala nga euh, xaatim ko wala nga jëm ko paaka wala pistolet wala dara mais waaye waaye waaye am na beneen xeetu rey bu bees boo xam ne mi ngi am ci àdduna bi boo xam ne ñi ñi koy def xamuñu ko te ñu ngi ñu ngi ñu ngi ay nit te te xamuñu ko te li ma wax nii lu lu lu kii la donc dund doomu aadama si boppam dem nañ ba jumtukaay xale yu bees yi yees yi ak ak jumtu jokkoo yu bees yi mi ngi mi ngi mi mi mi ngi koy def ngir ñëwaat ci ci faux profil yi am euh, beneen bi mooy jëmm euh, jëmmu jëmmu jëmmu naxaate yi defe naa bu dee naxaate bi defe naa yéen yéen ma ko war a que fii koo fi gis fii buñ ko naxul am na kenn koo xam ne mës na ko nax te gis nga li ci gën a yéeme mooy euh, ñi ci ñi ñi ñi ñiy naxe xam nga bu yàgg ba da daan dégg yooyu bu am ñu ne nigériens yi ñoo koy def daa ngeen ko dégg ñu koy wax yaa kii Nigéria waaye waaye waaye bu yàgg ba bëri na woon si ñoom ñu ko daan def ma léegi dem nañ ba nga xam ne léegi waa réew mi dañ si dañ si dem ba ba gën nañ ci xarañ xam nga ki lay woon naan la euh, nga wuy telef mu ne mu ne waxal alhamdulilah nga ne ko waxal alhamdulilah mu ne la waaw ndaxte démb euh, bi may euh, def sama listixaar wala sama wérde sa numéro téléphone dafa feeñ ci sama sama sama sama wérde bi wala sama listixaar bi xam nga yow loolu bu bu fekkee ñun ñi la du ñun sax mais mën naa ne ñi si ëpp ci Sénégal ñi si ëpp ñu bëri xamuñu ne ñu xamuñu su ko defee léegi li muy njëkk def mooy wax la wax la benn musiba boo xam ne te léegi xam nga fi mu toll nii gis nañ ne xale yu bëri Nicaragua lañ lañ la ñu bëgg dem donc fi mu toll nii boo boo ko nee naa benn yoon boo xam ne fi toll nii lii la ko gàllankoor lenn dong la mooy lii booy coupé téléphone mu lay waat parce que yéen ah mbaa du kon sama yoon yoon Nicaragua bi la gis te yàlla xam ne xëy gisu ko sax su ko defee léegi soo soo li ma wax nii dafa dafa dafa dal ay nit yu bëri yu ma xam loolu moo tax ma ma koy wax su ko defee yow léegi nga woo ko mun la waaw sa benn yoon laa gis Euh, yoonu yoonu tukki la yoonu tukki dafa naa yoon bu yoonu tukki la su ko defee léegi am na si ñoo xam ne dañ leen laaj ay sarax yoo xam ne ñoom mun ñu ko def ndax dañ la wax ne ah lii de ngir nga def ko mën naa joxe benn misaal rek nga génnee euh, euh, li nga waxee lu mel ni nopp nopp nopp golo wax damay wax noonu rek xam nga bu dee Ndakaaru def naa ak fii Tuubaa def naa doo fa gis golo xam donc ki ki mën dem ci àll bi wuti ko jëlal nopp bi daal sa daal def yi mu ci def loolu amul su ko defee léegi mën na laaj cinq cinq cent cinq cent gis naa loolu xam nga kii kii kii fay six millions pour dem pour dem euh, Nicaragua boo ko fayee ko cinq cent mille ngir ngir gàlla ngir ngir soppi li lu yàq ngir soppi luy gàllankoor yoon boobu xam nga daan la ko jox du dëgg noonu noonu lay demee su ko defee léegi ñu su su paree ñu kii ko nga gis euh, euh, bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee xale nga xale mboq waxambaane noonu la ñu def bu dee bu dee bu dee bu dee jigéen la su dee su dee jigéen la euh, ñu ñu ñu ñu ñu ne la euh, yow de am nga am nga am euh, nga jigéen boo boo boo nekkal moo xam xaw ma nag sa sa sa sa du sa waajur sa waajur du du waaye moo xam sa wujj la wala sa benn wujj peccorgo wala sa benn dina am ni ñu ko tënkal noo xam ne daal dañ lay wax wax boo xam ne la moom dafa dafa dafa xaw dafa xaw a xees xam nga mel nii lu lu njoolul noonu waaye waaye gàttul tamit xam nga ko njoolul gàttul kooku foo koy féete xam nga ne la euh, euh, kii euh, dafa xaw a ñuul nii waaye xaw na kii tuuti am daal ñu ngi tënk ba nga xam ne fasaasi sa xel day ñaaw su ko defee léegi ñu laaj donc sarax yooyu ñu lay ñu kii noonu lañ lay kiiwee beneen bi nga xam ne kon da nga jot démb rek jot naa kenn dafa ma woo dama maa ngi fenn dama léegi dama dama dama dama paan war a war a war ut ut ut essence bëggoon nga nga nga dimbale ma jox ma jox ma kii jox ma jàppale ma rek ma ma ma daal di kii ma daal di ma daal di kii. léegi ma ne ko léegi léegi amul problème mun ma la yónnee xaalis mais boo ma waxee foo nekk mën naa yónni Jakarta mu fekk la fa indil essence mu noonu xaalis xaalis moom moom moom moo ma gën a xam nga kooku kooku kooku kooku kooku kiiw la. gis naa si kilifa goo xam ne euh, ni ñu ko naxee mooy kilifa gu mag la euh, kooku dañu ne dafa siw ne ne moom dafa mën joxe moom lu mu yor rek daanaka boo ñëwee wax ko rek euh, dala koy jox mu dem ci moom ne ko mën de dañoo dañoo dañoo dañoo sàcc samay nag dañ ko sàcc samay dañ ko sàcc lu mu juróomi nag léegi nag fa nga xam ne moom lañ ma ne foofu la nekk fa laa bëgg dem nii nii nii nii nii nii jëli ko te te su ma ko jëliwulee rek xam naa dañ ko sàkkal pexe kooku daal di xool lambo li nekkoon ci poosam daal di ko koy jox mu daal dem léegi bi mu demee loolu doy ko bi mu demee ba ba ba ba ñaari fan mu woo ko ne ko yaa ma dimbale woon keroog euh, ba ma ba ma ba waaye léegi maa maa ngi dëkk bi waaye ki nga xam ne moo moo feeñal nag yi moo ko feeñal foog foog ma neexal ko te léegi daf ma laaj téeméeri junni la ma laaj euh, euh, waaw téeméeri junni la ma laaj pour pour nag yi ma ma jox ko ko moo fa ne ko feeñal waaye nag man jot naa dagale ba am mille léegi nag mu mu desee cent mille ma bëggoon nga waaye bii duma du la ko du la ko leb dama du la ko ñaan dama la koy leb léegi su ma ko yónnee rek su su su ma jotee nag yi rek dina am benn bu ma bu may bu may jaay léegi nii su ma ko jaayee naa naa naa la ko jox kooku daal dafa jot whatsapp la ko woo bi mu koy seet si dafa whatsapp la ko woo daal di daal di ne ko euh, rafet njort jox ko yónnee ko kii ci xaalis ci ci kii bi ci yónnee kaayu xaalis yi ne ko léegi bu may paree kii bi ma paree woo ko téléphone mënut ko jot numéro bi daal di réer donc yi ay nax la yoo xam ne te ki lii kenn mu gisi ci mu wax ne kilifa gu mag la kenn mu gisi médecin beeg docteur beeg sëriñ beeg euh, jigéen beeg mag bi kenn mukki si sa ku ci nekk rek am na foo xam ne buñ la fa laalee rek daanaka nga nga nga ñu daal lay kii ñu daal daal lay jekku donc naxa kaa li tax mu gën a yomb léegi kii moo te li si gën a metti mooy euh, ñoom buñ la buñ la buñ la buñ la buñ la buñ la defee yooyu ñu leen ba noppi ba nga yónnee xaalis après dootu leen mënti jotati puce bi moom defe naa dañ koy sànni xam nga léegi waaye nag yooyu euh, police ak gendarmerie ñu ngi def liggéey liggéey liggéey yu liggéey yu am solo euh, euh, parce que enquête yooyu waaye enquête yu yomb parce ki nga xam dafa la ndax coupé téléphone bi da dem dem si yoon nga war ko localiser war a xool yëpp enquête yi tey tey ak bëri bi mu bi mu bëree nii dina tax ba am ñoom seen liggéey day day bis bu nekk day day gën a metti waaye lu lu lu lu am la. beneen bi tamit mooy ci wàllu Facebook yi bis bu nekk fan yi am na si kenn ku ñëw ne ma. Euh, kenn dafa def profil Sadio maane ne ko euh, boo gisee may wax lu mel nii dama bëgg nit ñi xam ko parce que comme ça bu ñëwee si wala seen i mbokk wala dara ngeen mën ko xam ne ko comme léegi day waaj a pare football xam nga am na léegi def naa am na fanweer fanweer atam léegi weesu na donc li li ko desee ci ci ci ci carrière bëreetul ne ko léegi dafa commencé investir ci ci kii ci ci ci lépp ne ko sax jënd naa benn club football France léegi nag damay damay tàmbali léegi nag léegi nit ñi may gis. te comme dama damaa bëgg dimbale xam dafa yónni ñëpp xam nañ ko te damay gis benn nit boo xam ne gis naa la nga am xalaat mu financé la nga nga nga nga créé dara su ko defee léegi ñu ñu bokk comme par mu gis la ne léegi man de dama bëgg financé nga nga nga nga bay comme mu xam ne baykat nga léegi 40 euh, millions laa la bëgg financé waaye nag euh, fokk yow nga dugal ci dara fokk nga dugal dara ndaxte boo boo bu dee man maa def lépp yow yow doo ci mën a gis sa bopp daal léegi fokk nga dugal dara. kooku nax na ko ba ba yu ne ko ba mu yónnee ko 400000 euh, ba ba mu ca paree si la ko yéedeeg donc ku ci ne rek dañ lay dañ bu dee bu dee si wa wàllu soxna yi ñoom aussi noonu nax nax noonu lay noonu leen leen di naxee parce que ñu si ëpp dañuy euh, bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg borom kër daf leen di stressé ba ba ba nga xam ne léeg-léeg dañ leen ci nax dañ gis nit ku ñëw euh, jël benn benn benn foto ku ko neex teg fa commencé waxtaanal te ñu si ëpp si si jigéen ñu bari ku ci nuyu mu tontu la te boo xasee ba tontu rek pare nga. su ko defee léegi ñuy naxante ak yow naxante naxante ak yow comme comme kii ni ñu la naxee ci xaalis rek noonu la lañ leen naxee ci ci ci wàllu wàllu boobu te ñoom seen technique euh, boo gisee mu mu mu yéeme mooy euh, li njëkk def mooy dañuy dañuy créer confiance kóolute dañuy njëkk créer si yow kóolute parce que nit ki soo ko wóoluwulee doo jëflante ak moom xëy na tàmbali bi waxtaan lay nekk rek waxtaan da nga def maa ngi fi rek euh, te comme fii Sénégal dafa bëri ñu ñu mën a laaxatu man gis naa si koo xam ne. Euh, dafa ñëw si man benn bis ne ma dama loolu yàgg na mooy nafa bi kii commencé soo commencé ne léegi euh, gañe nga dara léegi pour ñu jox la ko da ngay joxe euh, benn benn xaalis mu ñëw ah man de xéwal daf maa dab man loolu daf la dab mu ne ah la waaye mu ne ma comme yow wóolu naa la dama yow rek laa ko wax waaye bul ko wax keneen ne man damaa toog fan yii rek sama benn xarit boo xam ne dañoo yàgg. bu ma ne dañoo yàgg man jàpp naa ñoo màggandoo wala bokk daara wala dara mais juróom-benn weer la ne ma boobu léegi ñuy waxtaan waaye dafa dem ba wóolu ma ne ma léegi euh, dafa xaalis boo xam ne euh, dafa nekk seen seen seen seen seen dëkk waa waa juróom bu góor moo faatu bàyyi ko alal ju bëri waaye alal ji comme ay mbokkam dañ dañ koy liggéey dañ koy njabar ak yooyu daa bëggoon rawale alal ji léegi nag bu bëggoon bëggoon ma ko dénk léegi su ma ko dénkee ma dencal ko ko euh, bis dina ñëw fi daal di koy jël si ne ma léegi nag ma bëggoon léegi yow nga comme jàngu ma ma bëggoon bind bi may bindante ak moom yow nga ma koy defal ma ne ko ma ne ko ah bu fekkee li ma xamoon ba léegi la waa ji dalee nax mu ne ma mu ma yow foogoon naa ne yéene nga ma lu baax waaye yéene nga lu baax waaw ndaxte xéwal gu mel ne dab ma ba noppi nga ma koy xañ ma ne ko ah, man de yéen naa lu baax moom parce que amul benn doomu aadama si àdduna bi mais nag man xam-xam laa doxee léegi bu fekkee léegi mën nga ma wan li ma la jóonee lépp lépp lépp lépp lépp ba ma saytu ko ba noppi dinaa la tontu xamoon naa fi mu jëm mais bi ma ko joxee moo won ko ci ay kii ne ko léegi comme ni ñuy wax xam nga ki lay wax ne la euh, euh, société société la yore société ba pare euh, nga nga xool nga ne nga ne nga ne ko foo nekk mun la maa ngi maa ngi Londres maa ngi Londres ba noppi téléphone bi nga xam ne moom moom lay moom lay moom la def ci suuf mu nekk téléphone boo xam ne xamoo ban dëkk la nekk. ma ne ko li ñuy tàmbalee mooy téléphone bi ngay xool ndax dëkk bi mu nekk fa la nekk ba noppi bi ñu ko tàppee mu nekk beneen dëkk mu nekk du gis nga loolu mu nekk defe naa ku ku ku ku am alal gu tool nii defe naa boo wa ut téléphone doo dem beneen dëkk di ko di ko fuuti mu ne waa lool lool loolu baax na léegi ne ma léegi waaye amul problème léegi àdduna moom ku ku ku risque dara doo am dara la risque risque lépp loo gis àdduna am am na risque léegi boo boo boo risque la doo am ne ma léegi dama xalaatoon léegi yónnee ko euh, yónnee ko euh, kii comme 500000 la ma laaj léegi dama ko yónnee euh, fukki junni daal di koy testé ma ne ah, man loolu du ma la wax ko parce que man du ma ko du ma ko yónnee léegi euh, bi ma ko yónnee mu ne mu mu ne ko yónnee ko comme mënoo ñàkk yónnee te gëmoo ma léegi yónnee su ko yónnee su ko ñaari junne nga xool bi ma ko yónnee ñaari junne yi waaye daal di noppi ne léegi ñaari junne baax na waaye man daal téeméer junne bi daal moom moom moo may moo moo may moo may moo may arrangé léegi ma ne ko léegi moom euh, comme moom ku amee ay ay millions si sa compte def naa waroo soxla téeméer junne man loo xel sax daf daf daf ko nanguwul biñ demee ba ci ba ci biir waa ji commencé ko laaj léegi nag yónnee ma sa passeport ma utal la kii ay kayit fii ay kii euh, visa sa passeport boo bëggee sax sa soxna ma utal la ma ne ko lii boo ko yónnee su ko dagalee ba noppi su ko dagalee ba noppi mën na ki dafa passeport bu bu bu bu faux ba noppi di ci tukki te bu ci tukkee daf ci musiba yow yaa am problème donc pour dire que fii te te moom moo feeñ mais am na ñu bëri bëri ñoo xam ne noonu la demee te feeñu beneen bi nga xam ne foofu laa doon jëm tamit mooy ci wàllu wàllu wàllu naxaate boobu mooy euh, xam nga léegi euh, ñu ñu gis nga léegi gis nañ léegi ay nit dañ lay dañ lay dañ lay woo dañ lay woo téléphone am na ñu koy def euh, jël jël numéro jàmbur am am ay ay ay xarañte bu ñu def ñu woo la mu mel ni kooku moo la woo def naa am ngeen fi dégg lu mel noonu nit woo la comme comme yow nga woo ma sa feeñ ci sama téléphone te te du yow nit ñi nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy def. xëy na siiwagul waaye loolu lu jar a bàyyi xel na euh, te defe naa euh, wax ngeen ma ne fan yi passé am na ko fi ñëw def naa suma ma juumalee waxtaan leen waxtaan intelligence artificielle wax na leen lu mel noonu wax na leen loolu li ma leen wax nii waxule wax na leen ko jël euh, ak nit yeeg yooyu waaw yooyu tamit daf ci am léegi bu bu ñëwee si si beneen bi mooy jëm jëmu chantage yi mooy yi nga xam moom moo gën a siiw chantage chantage moom dafa dafa dafa dafa nekk loo xam ne man jàppoon naa ni kenn dootu ci euh, duñ ci nag duñ ci def kenn mais ba léegi jamono yi ma wax am na ay nit yoo xam ne ñàkk nañ seen alal jàggi seen i kër euh, tey la seen seen lépp ci ay ci ay chantage lu tax parce que ni ñu koy defee mooy euh, kenn dee ñëw moo dañ ko def góor di ko def jigéen nit dee ñëw par exemple mu gis ne yow góor nga mu def profit benn jigéen daal di daal di tàmbali bi sax xëy na waxtaan la si jublu waaye xam nga seytaan daf bëri doole suñu demee ba ci biir ba ci biir ba ci biir ba ci biir mu mu mu waxtaan bi neex su ko defee mu léegi man de dama bëggoon nga nga nga nga ñu ñu ñu ñu def appel vidéo di appel vidéo bi man dama lay wan dama damay simee ko ba ba mu set bu ma paree yow tam nga def ko bu fekkee yow yow te ñu bëri dañ leen ci nax su ko defee léegi yow bu fekkee àndoo ak sa ak sa xel wala àndoo ak sa ko moom day ñëw def li nga def def li mu la wax waaye moom bu koy def benn vidéo la lay tegal. parce que day fexe ba nga xam ne profil bi nga xam ne moom la teg ci ci moom la teg ci ci ci photom ut benn vidéo boo xam ne day day day méngoo te ay ay montage rek ñu xarañ ñi macha allah mën nañ ko def léegi vidéo bi la lay tegal ba gis li nga bëgg gis yëpp léegi su ko defee léegi mu léegi-léegi yow yaa yaa ko yaa ko def su ko la moom la mu def euh, simeeku euh, ci ci ci caméra bi yow nga def ko léegi nag boo ko defee léegi moom lay jël def ci ay montage daal di ko yónnee noonu léegi lii de Euh, maa ko jël ci yow keroog bi ñuy waxtaan léegi pour ma bañ ko publier ci réseaux sociaux yi da may euh, da may jox xaalis am na ñu baree bari ba fi may jamono bi may wax yow am na ay yoo xam ne piège boobu ñu ngi si te lii mën naa ne euh, kenn du ne mën mën mën nga si mën xëy na suñu borom moo ci dimbale ak aussi nga xam ko am na am na ñu bëri bëri ñoo xam ne ñu ngi ko def bu ñu nee ba ci ba ci ba ci mu gi dinaa indi ci ci xeetu ci ci saafara yi nga xam ne mooy mooy mooy mooy saafara loolu. suñu indee tamit ci ci ci wàllu waa waa waa waa naxaat naxaate yi nga xam tamit am na ci euh, jumtukaay yi euh, am na da ngeen dégg léeg-léeg euh, ñuy wax nit am na am na am na quatre cent mille vues un million de vues wala j'aime j'aime yooyu ñuy wax noonu am na j'aime yu bëree bëri am na ay nit yoo xam ne dañuy defar ay logiciel yoo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy làq ci ci ginnaaw lien wala làq ko ci ginnaaw benn j'aime am na nu ñu koy defee loolu ñu seen seen seen liggéey la léegi bu fekkee da nga cliquer parce que lépp cliquer cliquer mooy mooy musiba bi internet moom defe naa cliquer moo mooy musiba bi parce que doo def lenn te cliquer wu te cliquer boobu mooy mooy musiba bi léegi yow yow boo boo ci cliquer la nga xam ne moom lay def ñoom dañuy defa xam nga euh, ñi xam programme programme internet gis nga programme loo ko wax mu def ko loo ko wax mu def ko nee ko rek damaa bëgg léegi lii bu bu ko bu ko kenn gisee Euh, bu ko bësee bu ko cliquer léegi euh, am na luy logiciel boo xam ne euh, defar naa ko boo xam ne bu ko nit installé ci téléphone am wala ci ordinateur am lépp loo xam ne def na ko ci lépp loo xam ne tàppe ko si man dama koy gis te dama si jot programme bi lay bind ba noppi ba pare léegi daal daal di koy daal di koy daal di koy collé ci ci ci ci loolu mu la mu la mu la yónnee xam yow jëmm bi nga ko bës rek rek doy na bés rek moom bësal benn yoon rek li si des yëpp liggéey moo koy def xam ne da ngay pare donc nit ñu bëri ñu ngi dox te seeni téléphone am na ñeneen ñoo xam ne xam nga léegi nit day ñëw ne man dafa am lu ma jaaxal ba dafa ay ay message yoo xam ne euh, man kese man maa ko xam mi ngi sama téléphone wala ay foto yoo xam ne kenn mësu koo xam man naa ko jël sama bopp te gis naa gis naa ko gis naa euh, gis naa ko ci biti xam nga loolu da dalay jaaxal mi mel nga nga nga am sa néeg tëj fa sa dara bu noppi xëy si gis gis ko si mbedd bi di nga ne mais caabi ji man kese maa ko yore kon naka fan la nit mën a jaar ba dugg fii ba jël ko ba di si kii yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yu bëri noonu lay demee su ko defee yow boo boo ko cliqué léegi day day moom saa yoo euh, connecté woo rek moom mën na connecté wu ci suuf. bu tax man léeg-léeg ngay toog tàng jër jër jër jër xam nga wala wala mu yéex lool waxuma loolu moo koy yi koy def ci lay bokk parce que euh, kii bi liggéey yi ne def si ginnaaw. léeg-léeg moo koy waral waaye du saa su nekk nag la may bañ ni defe ne saa ku gis rek defe ne loolu la waaye si yenn mandarga yi loo loo loolu ci lay ci la ci lay bokk su ko defee yow léegi lépp loo xam ne def nga ko sa mi ngi mel ne nga am léegi yow boo duggee sa Facebook wala wala dugg sa WhatsApp wala dugg sa Gmail wala fu mu mën di nekk boo tapé mot de passe bi soo koy tapé rek bay wis bouton bi rek moom da si jot xam nga ki nga xam ne am na am na sa mot de passe am sa sa sa sa sa sa sa sa li ngay dugal loolu li ñuy wax euh, pseudo mot utilisateur kooku jeexal na wax am na ñoo xam ne li ñu koy doyee mooy euh, pirate la suñu paree léegi changé mot de passe bi léegi yow li ñu la def ñu jaar fa def def ko ñeneen defe naa yàgg ngeen gis nit naan la dama nekk euh, yónni la email loolu yàgg na léegi téléphone lañ koy def ne dama nekk euh, aéroport Nigéria wala aéroport France bloqué foofu buggul nga yónnee ma xaalis waaye bul ma tontu ci email bi bul ma tontu parce que day fekk ñu e email kii compte jàmbur dugg ci. yónnee email ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, ci ci compte bi yëpp xaritam yëpp ne leen man dama nekk benn aéroport Côte d'Ivoire wala wala fenn nag càng foofu buur nga yónnee ma xaalis waaye bul ma woo xam ne ne soo ko woowee moom moom nga jot léegi diggante bi nga xam ne euh, piraté nañ compte bi ak ak ñu yónnee ko xaalis ak borom compte bi xam ne piraté nañ ko fekk lu baree baree bëri bëri bëri jàll na donc ñu bëri bëri bëri jafe-jafe yooyu euh, am am nañ ko si léegi bu mu ñëwaatee ci wàllu cliquet bi bis man dama koy gis nga soo gisee groupe yu bëri partage yi après ginnaaw ko partage boo gisee mu mu mu mu dangereux mu mu mu mu mu garaaw yow mën nga toog am sa téléphone doo doo doo doo partagé doo ubbi lien doo ci def dara waaye nit melul ni yow ñu piraté téléphone am mu am mu am conséquence parce que xëy na yéen ñaar yéen a ngi jokkoo jokkoo boo xam ne yéen ñaar rek yéen ko mën a xam yéen a ko war a xam yow sa sa sa téléphone yow jël nga matukaay yi war waaye moom xëy na moom jëlu ko. su ko defee léegi léeg ngeen gis par exemple ay audio génn audio génn am na fan yi problème bu mag bu amoon ñaar nit yu seqoon dara ñoom ñaar rek ñoo ko xam euh, ci ci audio lañ ko doon defee audio audio audio audio audio whatsapp audio bi daal di jékki feeñ loolu bu amee kan ngay njëkk a yi waa ji parce que yii ñaar rek yéen ko xam donc bu te yow xam nga ne yow génnee woo ko donc su génnee ci moom la mais bi ñuy demee dafa ay gëstu gëstu gëstu gëstu ndekete téléphone dañ ko dañ ko piraté donc ki am donc audio bu mu jot rek wala vidéo bu mu moom loolu da koy déglu su ko déglu ba bu fekk intéresse na ko mu daal di koy wàccee noonu noonu lañ ko tasee donc loolu moo tax euh, sécurité bi am ci internet boo gisee ñun ñun ñu ñu war a tiit ñun ñëpp si ñun yow boo jëlee si matukaay yi yëpp yëpp yëpp yëpp am na koo xam ne bu jëlee matukaay musu musu matukaay tal moo jox la benn benn euh, misaal bu am buggi day gis kenn yónnee benn lien gis nga ko ay kii day day maye cinquante giga euh, kii day maye ay billet Mac kii day may lii kii day may lii kii day may lii yooyu yow nga jot ko am na ñoom dañ dañuy bëgg partager après dinaa ko wax dugg ko si benn ji nga xam ne moo moo moo def loolu eh, lien boobu daf ko def ba nga xam ne saa yoo ko cliquer rek téléphone wala sa ordinateur xam nga yow nekk si gis yow nga gis si benn group di ko jéem a di ko jéem a eh, effacer gis naa ko ah, supprimer la wax supprimer ah supprimer eh, xam nga di nga bës juum rek bës ko moom lañ ko def di def xam nga ko lor na la comme nga xam ne fi may waxee xam nga lor na la ndax dugal na ko si si groupe bi euh, moom musiba dal na ko ba noppi après mu wàll mi mel ne nit nit feebar ba noppi daal ne ma wàll keneen daal dem wàll wàll keneen donc noonu noonu lay demee donc moo moo moo tax euh, groupe yi boo gisee mu mu mu mu mu mu mu mu garaaw avant sax bu yàgg bi ñu soog a tàmbalee euh, gis naa ne ñu ngi ko doon saytoo ak. pas ñi ngi ko doon jëfandikoo baaxoon na càmbale bi mais léegi dafa dem ba nga xam ni dafa dafa mujj dafa dafa jég dayoo man gis naa euh, chantage yi ma ko ko chantage yi naa sànq koo xam ne ku jigéen la mësul am téléphone si àdduna téléphone téléphone kii moo téléphone yi dem internet mësu ko am téléphone yi yi ngay yu ndaw yi la amoon bi nga bi nga bi muy bi muy bi ko bi muy waxtaan ak euh, euh, kii kii ko ki ki ki ko jël soxna ci ci ci waru gar bi léegi sax ñu bu dañ koy def léegi bu ñu joxe wargal dañuy joxe wargal war na teg la ci téléphone <laughs> léegi bi mu ko joxee euh, téléphone bi moom nag waaye na moo installé lépp moo def whatsapp def facebook te lépp loo xam ne jàpp ne moom dina ko soxla buy waxtaan ak soxna si def na ko ci léegi soxna dañ ko jox téléphone rek mu jël léegi bi ñu ko jox téléphone bi moom musu musu ko xam léegi waa ji moo ko woo téléphone di ko wax ni ñu koy defee ne ko léegi euh, whatsapp mooy bu verte bi euh, facebook mooy bu lii bu bule bi lii mooy lii léegi boo bëggee wax da bës léegi soo bësee après ñu su wax léegi boo bëgg bàyyi vocal da ngay da ngay bës fii xam nga la parce que euh, kii la koy def ndaw si ñaari musu moo ko si dal ñaar affaire ñaari ndaw la mais ku ci nekk damay nettali kenn kenn ki moom dafa dafa dafa juum di di di partager xam nga booy partager booy partager da ngay tànn ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom ngay partage mais léegi-léeg nga juum euh, bës koo xam ne bokk ci def naa euh, li dal bëri na léegi bi mu bi mu bi mu mooy waxtaan yi doon waxtaan ak yi ñoon échange mag waa ji mu mu mu juum bés boole ci kenn kon bokk ci te am na groupe groupe yu bëri par exemple groupe yi may bokk man saa yi ma si gisee loo xam ne euh, euh, jaaduwul fa saa si bu fekkee administrateur la woon dama koy supprimer bu gaaw mais ba pare wax waa ji ku dugal wax ko ne ko lii supprimer ak lii ak lii moo tax jàpp naa nit ki yàlla gis ma dul juum te te moom léeg-léeg gis nit nit dugal dara si groupe gis ñu dal ci kawam yuxu ko saaga ko lu nañu def ko ko nekk waru ko fi dugal lii dañ ko kii ak yu demee noonu defe naa ñu ko def bëri na te moom ba mu koy dugal yàlla sedd na dafa dafa euh, dafa juum ak ñoo xam ne aussi ñoo koy tey te ñëwaat ci bi ma doon wax sànq ndaw si bi bi mu bi mu juumee dugal si groupe bi ki ki ko njëkk jot ki ko njëkk jot daf ko daf ko jël ba na partagé waat ko xam ne loolu daanaka euh, kii euh, kii kii boobu sëy bi ak ak ak waa ji diggante bi ak waa ji fa la fa la fa la fa la fa la yàqoo mooy musiba yi nga xam ne da koy indi euh, keneen ki euh, moom même kii bi la dañ ko jox téléphone mosu ko xamul nu ñu koy jëfandikoo ñu daal di koy ñu daal di ñu daal di koy leeral moom moom itam euh, nit nit daal di daal di koy nax jël parce que léeg-léeg dañuy gis nit jël jël jël photo profile jàmbur daal di lay woo téléphone. yow boo gisee profil au lieu au nga jéem a seet ndax moom la wala du moom fa saa da ngay jàpp ne mooy borom numéro bi. xam nga daal daa daa daal di koy woo comme bu fekkee borom borom borom këram la xam nga moom monsieur bi ko daal boroom këram daf ko daf ko yónnee kii la nekk euh, dafa nekk ci àll bi la nekk da ko yónnee xaalis weer weer bu jot waa ji xam ne borom kër gi da ko yónnee xaalis weer bu jot mu woo ko ne li ma la yónnee woon léegi nii euh, dama dama dama see juum léegi yónneewaat ma ko waaye après dinaa la ko yónneewaat léegi nii noo si daal di ñëw rek daal demaat rek daal du koy yónnee. léegi bi mu koy yónnee kooku kooku puce bi léegi nag ci ëllëg sa mu ne borom këram yow kat eh, démb da mooy newoon ma yónneel li nga ma joxoon a jël mu ne man ma mu ko yaa ma wookee bi mu demaatee ci ci kii bi ci ci ci ci appel yi euh, bu bësee fekk waa ji waa ji waa ji kii na donc ñu bëri bëri moo tax yeete bi baax yeete bi moo tax ku ci am sa sa sa soxna wala wala wala sa sa sa sa kër yeete yi dee dee leen ko ci boole dafa baax ni ngi amee sa kër parce que bu yàgg ba dama naa wax ne sécurité dëgg-dëgg bu yàgg ba mooy dangay am sa kër euh, ut ay mur 3 mètres ñetti mètres ci kaw ut ay bunt yu dëgër ak serrure yu baax ak lépp sa kër dina wóor mais léegi loolu sécurité boobu léegi amatul sox kii watul léegi euh, yematul foofu ndaxte ki nga xam ne mooy def musiba sa kër soxol mu fay ñëw dañuy gis ay nit ñu bari ñoo xam ne guddi gi dañuy xale yi dañuy nekk dinaa am benn pàcc bu ma wax pour xale yi après laa laa ci ñëw nga xam ne guddi gi da ngay gis ñoo xam ne euh, bis bu ne wax sama mbokk sëriñ daara yi man leen boo gisee internet graaw si si si si si si daara yi dañuy daara yi bëri da ngay dem xale yi dañuy ame amee téléphone te seen seen sëriñ daara duñ ko xam comme nag gis ngeen loolu dañ koy amee te sëriñ duñ ko xam xam nga yow ni ni nga koy xamee mooy xale bu ñëw euh, xam nga nit dañ lay gis nii duñu xam ne yow no no no no ndongo daara nga nekkoon comme ñoom balaa balaa ngay egsi fii donc dañ lay jàppee nit Ndakaaru bu ñëw ci daara ji ñu la doom ma jënd crédit ma jënd crédit pour lan dama dama dama bëgg woo woo sama sama sama sama yaay xam mais man sama xel day sori ma ne man mais bu fekkee ndongo daara dafa ñëw ne ma ma crédit mooy am na téléphone loolu laa jàpp donc bu fekkee am na téléphone jàpp ma ni benn sëriñ daara dina nangu euh, ndongoom di yore téléphone di ko di ko téye léegi comme sama liggéey la def ay gëstu gësu si laay gisee ne ñu bëri bëri bëri guddi gi dañu yore seen téléphone nekk ci ci néeg yi di ko di ko di ko jëfandikoo di sëriñu daara di ko xam loolu aussi lu jara bàyyi xel mais loolu li si gën a garaaw suñu euh, kilifa yi daan daan dem ci ci ci ci ci ci àll bi di fa def ay daara loolu la woon pour ñu bañ a jege dëkk bi xale yi loolu la woon moo xam ñu leen set yi moo xam ñu jege dëkk léegi nag léegi am daara ci àll bi ak ak daara ci dëkk bi ci ci lu bëri daanaka mën nañ ne ci lu bari benn la ndax la la nga daan bañ mooy ñu jege nit ñi si biti léegi ñu ngi koy def nga xam ne léegi euh, nit ki mën na li garaaw ci xale transition wala ci xale mooy xale dafa am ñaari am ci xale dafa li ñuy wax tubaab di wax légalité ak légitimité ma tënk ko ci tubaab xam nga légal légalité mooy lan xale bi yow yaay baayam wala yow yaay ndeyam donc yow yoon yow bu ñu nee bu doon nit mën na moom dara yow yaa ko moom ci ci ci ci ci ci këyit ci wàllu baal ma de baax naa ci wàllu këyit mën na yow yaa ko moom mais légitimité xam nga mooy lan mooy mu nangul la misaal bi xam nga mooy lan xam nga yow mën nga yore léegi nga yore sa doom téye ko. sa xarit ñoo rek mu dem ci moom kooku ñëpp lay dal nga xam ne yow fi mu ne bu boo taxoon sa xarit bi taxaw si si moom lay dem moo ne te pourtant xale bi yow yow yaa yaay kilifaam mën nañu bu dee wàllu moom yaa ko moom ci wàllu këyit waaye jëmm légitimité ki nga xam ne moom moom la jox boppam joxu la boppam kooku la ko jox léegi ñi nga xam ne léegi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy euh, dañ leen di wooy ay pédophile ay pédophile pédophile mooy ñi nga xam ne ay dañuy dañuy nekk mag ba pare di sàkku ay xale yu ndaw xale bu ndaw moom moo xam xale bu ndaw bu góor wala bu jigéen ak ku mën ci nekk te lii wax di góor da koy def jigéen da koy def donc sinon bu nee pédophile rek ndaw xale bu ndaw góor jigéen da da da leen da leen di moo leen moo leen moo leen yitteel donc loolu da nga koy gis léegi ñooñu dañu xam ne xale bi bu bu bu bu xasee ba ba miin la rek loo ko bëgg defal da nga koy defloo léegi li ñuy def xam nga bu yàgg pédophile yi nu mu daan demee mooy da daan gis xale xale buy jàngi école di jàngi école wala muy génn si biti nga gis mag këf ko daal di koy sàkku daal daw xam loolu la ñu xamoon ci ci ci ci ci xale bu mag buy sàkku xale waaye bi internet bi ñëwee ci ci euh, technologie bi mu bi mu bi mu ñëwee dafa indi beneen xeetu dafa indi dafa indi beneen xeetu xeetu euh, euh, pédophile bu bees léegi yow da dem ci internet bi léegi di xool profilu xale yi léegi xale boo ci gis rek bu fekkee kii na jublu na la rek nga fexe ba xamante ak moom te gis nga xale bu xasee ba am confiance ci mag rek lu mag ji bëgg da koy def xale bu xasee ba ba am confiance ci mag bëgg bëgg mag lu ko mag def la koy def léegi yow bu yàgg ba ñi daan sàkku xale yi ñoo leen daan fekki di leen sàkku léegi nag ñoom la bi internet bi ak jumtukaay yu bees yi xale yi ñoo di fekki ndaxte mën nga ñëw waxtaan ak moom boo waxtaan ak ba noppi daal di ko ne fekk fekk ma fenn xale bi suy génn du tàggu yemal ay ay ay cas am la moo tax su ko defee léegi xale bi génn fekk ko fenn su ko defee mu mu mu sànk donc pédophilie bu bees bi foofu la léegi nag li li am li danger bi ci ci xale bu yor téléphone moo lañ ko tere fi mu nekk ni moom bu ko kenn jéem naan samay doom dama leen tere téléphone boo leen ko teree dañ ko man gis naa ay xale yoo xam ne euh, euh, parce que man fi ma dëkk école école la jàkkaarloo man ak sama wàll liggéey damay gëstu lu bëri di xool xale yi ni ñu ko comporté woo dañuy xale boo xam ne amul téléphone këram léegi li muy def mooy euh, bis bu ne dañ ko jox téeméer pour mu jënd añ fi mu gën a añ léegi téeméer du jaral na ko bañ a añ am na xale boo xam ne moom am am na téléphone am na am na tablette am na lépp waaye amul lu mu jëndee pa amul amul lu mu génnee paas léegi ki am lu mu génnee paas mu indi xaalisam ki am internet ki am euh, téléphone bi wala euh, tablette bi indi ko ñu ñu ñu jënd paas ñu bokk ñoom ñaar donc li ngay tere xale bi yëpp ci kër gi bu génnee si mbedd bi mën na ko def donc fi mu toll nii bu kenn defee ne da nga tere sa doom téléphone rek nekku si moo tax yeete bi daf daf daf ci baax te si feebu dinaa si ñëw man yeete bi moom laa gën a gëm sax que que que bañ a jox xale bi téléphone parce que soo ko leeralee li nga xam ni moom moo am musiba da ko du ko def ma jox fan yi dama dama dama euh, am benn ndaw suñu si man bi may def ay conférence école taxte man ci sama wàllu liggéey mais loolu sama sama social bopp la man maay dem ci école yi di waxtaan ak xale yi xam naa xale yi bu leen waajalee li ma gis ni muy ñëw nii man dama ci tiit lool lool lool te ginnaaw lan moo tax ma tiit si parce que euh, euh, ay ay ay ay ndaw ñoom ñooy avenir dëkk te bu fekkee tàggatuñ leen ci ci ci xaral yu bees yi ëllëg musiba dina am loolu moom euh, lu leer la misaal bi ma la dama dem benn école benn bis di waxtaan ak ay xale saa yu ma paree damay waxtaan ak ñoom nii comme ni ñuy waxtaanee ak ak ak ak kii ñu may wax tonton Bamba lañ may wooye man leen kenn ki ne ma kii tonton Bamba yow de li nga wax fi yëpp yëpp yëpp yëpp sama waajur daf koy def moom boo nee waajur doo nekk góor ku ko jigéen parce que góor ñi ak jigéen ñëpp nekk si internet bi mu ne ah mu ne li ñuy wax yëpp moom da koy def ci mu yëpp nii xale bi ne ma da def ci kër gi xam yow te xam nga xale mënul wax waajuram dëgg xam nga waajur xale mënul wax waajuram dëgg xam bu dee sama ni ko ah li nga nekkee baax mais ma donc xale yi lii mag ñi def yëpp yëpp ñu ngi koy xool moo tax ku si nekk sa kër boo si nekkee ak sa téléphone ak sa waa kër na nga bàyyi xel bu baax a a baax ndaxte ñoom dañ dañ dañuy dañuy dañuy mais duñ la mën wax dara kenn ki daf ma ne Euh, moom mu ne ma mu ne man mu ne man sama waajur la wax waajur day nekk si kër gi su ko kenn wooyu mu ne ko nekkuma fi te mi ngi foofu toog te def naa dañuy gis léegi nga toog sax ci jitaay nit woo nit ngay dégg mu ne foo nekk mu ne man de maa ngi maa ngi maa ngi kii maa ngi Kébémer fekk mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi fii toog te xale xale bi xale bi daf koy dégg yow ndax man mën jàngale sa sa doom ne ko del del euh, euh, tegu si yoon del dëgg alors beneen bi tamit mooy léeg-léeg nga gis par exemple xale daal ñëw ne ma bii benn kaala woon ci ci ci ci kii boobu moom xale bi euh, film yi yi nga xam ne nag suul noonu rek lay seetaan yi nga xam ne naka suul noonu rek lay seetaan léegi mu dem ba jaaxal waajur bi léegi nag xam mu nee na mu dóor naa ko lu ne def naa ko mais xaw nu may def léegi euh, bis nag mu gis ma ci télé bi def naa beneen bi ma si bëgg yokk si li mu yokkoon bu dee da ngeen seetaan télé émission yi bu dee ci télé yi maa koy def Euh, si télé yi euh, Ahmadou Bamba Thiam may waxtaan ak réseaux sociaux internet si plateau télé yi donc am na ku ma doon wax léegi dama am fu mu la xàmmee euh, si foofu lay nekk léegi léeg-léeg nga wax télévision dara nit wër wër téléphone comme kuy comme comme ku am malade réanimation xam ne bu la jotulee du am jàmm nit mës na ma ne yaw bu fekkee jotuma rek damay xaru mu ne nga ñu lan mu ne bu fekkee jotul damay xaru li muy dund nii yow rek jàmm jàmm si mën dimbale ma leen wax nii mu wax loo xam ne xëy na yaakaar la ci am rek si kàttanu yàlla léegi ci xale bi xale bi yaayam ne mënul ma ko dara léegi mais ba ma ko dama ko ne yow yow euh, sa yaay nee na ma da ngay nekk si téléphone bi ak tablette yi di seetaan naka su dul noonu rek daal mu ne ma mu ne ma waaw mun na mu ne mu ne ma waaw mais mu ne ma mun munu ci dara munu ma ci dara comme ni nit di nekk ci drogue bi ba ba mun mënu ko bàyyi wala dara moom noonu la ci nekk mënutu ko bàyyi moom nangu na ko léegi la yàlla bëgg a dim ma ne ko est ma ne ko yow loo ci seetaan mu ne ma euh, li la sama yaay laa laa gis daal ma ne ko euh, ñu koy def mu ne ma sama ay morom sa ay morom mu ne ma waaw ma ne ko ñaata at la am mu ne ma sama morom mu ne ma mu ne ma mu ne ma mineur la xam nga mineur moom mooy koo xam ne am na moins de 18 ans donc bu mu mënti nekk donc mineur la mu ne ko est xam ma ne que euh, loi loi si boppam loi daa si ñu appelé bu ñu bu ñu def solution yi dafa tere ne képp koo xam ne. Euh, photo mineur la ñu wane ko ci naka sudul noonu loolu prison la automatiquement prison prison la loolu am na am na am per ay prison la moom la ñu woowee euh, pédophilie infantile mooy ñi euh, lépp loo xam ne moo xam ay image la wala mu nekk ay photo wala ay lu mu nekk loo xam ne dafa am xale ba pare mu nekk naka sudul noonu rek su su képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo waxuma sax nga jëfandikoo ko mais mu nekk sa téléphone rek rek rek rek rek rek dañ la ngi nga dem prison te kii mun a tàmbale six mois ba dix ans mu ne ma ah bon ma ne fi mu nekk nii nii bu fekkoon police ñëwoon na fi léegi nii jàppale da nga dem prison léegi nii prison mineure ngay dem forbe xale bi daal tiit daal tiit léegi nag après mu daal dem léegi après bi mu demaatee après waxtaan waxtaan waxtaan bis yaa mu woo ma ne ma yaa mu ne ma bàyyi na ko donc euh, boo gisee ma ma ma ma ma gëm waxtaan ak xale man dama ko gëm xale duur beeg xas beeg yëpp waxtaan ak moom mais waxtaan boo xam ne aussi da ko teg ci xam-xam waaw parce que xale boobu xam mun ma ko tere mais amul fi benn nit boo xam bëgg bëgg nga dem prison amul de gisuma bëgg dem prison amul. donc am na noo koy noo te comme xale yi si ëpp dañuy ragal policier ak gendarme xale yi dañ leen ragal am na noo xam ne boo leen ko waxee rek dinañ dinañ si xaw a tiit pour pour pour pour si loolu. léegi suñu ñëwaatee ci ci wàllu wàllu wàllu soxna yi ndax soxna yi seen daf ma daf ma yitteel lool seen seen seen seen mbir ci internet bi parce que dañ dañ ci sonn li ci góor ñu sonne waaye jigéen ñoo ci gën a sonn xam nga léegi ñu ñu ñu ñu si bëri euh, kii lañ ko def euh, euh, defante defante defante kaay lañ ko def mooy comme ni ñuy wujjee ci ci kër yi. léegi noonu la ñu wujjee ci yi noonu la ñu wujjee léegi ci réseaux sociaux ak internet yi dañuy gis léegi ñun bi ñu nekk xale dama naan fàttaliku euh, ah, robinet mbedd nga xam ne jigéen dañuy ñëw suba teel daal di ran ku nekk indi indi sa paan nga root après dem man dama daan fekkee xale bu ndaw laa woon ay jigéen di xeex mooy paan paan weñ yi nga daan gis paan weñ yi dañ ko daan xale dañu gis ñu ñu dóor ko jigéen bopp bi xar bopp bi toj dama ko daan gis bi ma nekkee xale yooyu ñu doon def ci ci ci robinet mbedd yi léegi ñu si bëri moom lañ yóbbuwaat ci internet bi xam ne lépp loo xam ne defante la rek fa lañ koy yóbbu te loolu euh, euh, musiba la da si gis ay ay ay ay ñoo xam ne dañuy dem sax ba bu ñu amee ay information wala ay photo wala ay vidéo yoo xam ne dafa nekk ci jigéen boo xam ne dañ dañ dañ dañ dañu am ak moom jafe dañ ko ci génnee te te te loolu euh, xamuñu ne données personnelles li ñuy wax données personnelles baax na tamit ñu ñu ñu tënkoo mooy bépp information boo xam ne suñ ko waxee rek ñu xam kan la moo xam mu nekk téléphone numéro téléphone moo xam mu nekk foto wala moo xam mu nekk vidéo wala mu nekk euh, audio lu mu nekk loo xam ne bu ñu ko tegee rek ñu xam kan rek loolu nit ki moo ko moomal boppam donc képp koo xam ne jëfandikoo jëfandikoo nga ko ba pare mu lor mu lor borom lor si internet wala si yi kooku bu la topp yoon day dal sa kaw parce que am am na loi yoo xam ne danaa si ñëw bu bu bu bu may daaneel mooy mooy tënk donc li ñu fi wax yëpp yëpp yëpp yëpp yoon yoon yoon yoon tënk na ko. léegi suñ ñëwaatee ci ci ci ci ci wàllu euh, sécurité nag bi nga xam ñun moo moo moo ñu gën a ñor wàllu wàllu ci ci euh, cybersécurité xam nga gis ngeen ne léegi euh, kii yu bëri dëkk yu bari léegi seen seen courant bi bi bi bi doxal léegi sax gisoo courant yi léegi xam nga léegi si internet lay lay doxee léegi parce que booy booy booy fay da ngay doo dem di fay si mbedd bi si si kii bi ci ci fi ngay fayee moo xam courant moo xam ndox moo xam yi ngi fay yëpp daanaka foofu la nga da ngay dem rek. Euh, léegi dugal benn jënd dugal benn code mu dem xam lii léeg am na fii benn kilifa gu mag si si réew mi euh, si gouvernement yi la passé dafa dem ci télévision bi daa gi ne léegi fi mu nekk ñi léegi bu ñuy def ay dépanne ay courant ak ak yu demee noonu soxlaatu ñuy dem ba ci kër yi di ko def am na foo xam bu ñu fa toogee euh, def ay manipulation rek day day day sotti loolu loolu loolu dafa grave parce que gis nañ ne léegi guerre yu bees yi nga xam ne moo am léegi guerre xam nga guerre dafa solo xam bu yàgg ba lan la woon ay mitrailleuse la woon ay char de ay ay ay ay avion ay mitrailleuse ak yooyu mais guerre yooyu léegi soppee soppeeku na parce que guerre li li tax mu mu nit ñi di ko jëfandikoo mooy pour rey ay doomu aadama loolu rek de guerre boo gis rey ay doomu aadama moo tax mu jóg mais guerre yu léegi soxlaatu loolu bu fekkee nit ñi li ñuy li ñuy li ñuy naan ci ndox wala li nga xam ne moom la ñuy euh, jëfandikoo ci courant te courant hôpital yeeg euh, kër yeeg ñëpp ko soxla bu fekkee mun nga couper même même ndox mi li koy dawal sax courant la. fekkee boo coupé courant boobu ndox du am mais nit ñi dañuy faatu loolu la bëggoon ci bombe yi ak ci ak ci mitrailleuse ak ci pistolet yi di nga ko am ci kii yi donc loo loolu moo tax jumtukaay yi xarale yi euh, euh, euh, garaaw garaaw boo xam ne état dañ dañ si war a bàyyi xel man yàgg naa ci bind pour pour fii bon du boo bu ngeen demee si un dañ koy am na yoo xam ne secret la duñ ko mën a wax mais li ñëpp war a xam mooy protection li ñuy wax infrastructure critique wala lépp loo xam ne suñ ko laalee musiba musiba am ci dëkk bi ay nit faatu rek loolu lu ñu war a toppatoo la lu ñu war a bàyyi xel la donc malheureusement ñun suñu suñu suñu dëkk yi parce que bu ma du ma ne Sénégal parce que dëkk yi yu bëri ñoo même problème bi lu si bëri dañ koy dañ koy néewal doole mais boo xamee musiba yi nga xam ne moom moom moo ci am te nga dund ko gis ko fenn mu mu yàq fa lu bëri bëri bëri lu lu lu lu lu jar a bàyyi xel la léegi suñ ñëwaatee ci ci ci wàllu euh, suñu ordinateur yi nga xam ne moom moom la am ci ci gem bi ma la wax am na lu bu yàgg da daan dégg Euh, j'aime xam nga senegal dañuy gis ne euh, dañuy gis euh, publier benn photo wala benn vidéo am na ñoo xam ne xam nga naka naka lañ koy aimé parce que seen benn xarit aimé na ko bu ne eh kii de par exemple sëñ Cheikh naa kii aimé ko façage dañ koy bës duñu sax xam lan moo tax léegi dañuy gis ba jékki benn nit rek jóge jóge benn benn gem am am un million am na ay logiciel yoo xam ne gars yi dañ koy dañ koy dañ koy defar. xam ne soo soo ko soo ko manipuler nit mën a jógee benn j'aime am un million de j'aime su ko defee yow da ngay kii am na ay ay ay ay ay un million de vues wala un million de j'aime alors que yooyu yëpp am amul donc yooyu aussi yu jar a bàyyi donc mais moo lay wan nekk léegi nit te li gën a yéem si internet bi mooy jikko yi yi yi mu soppi benn mooy am na ay nit ñoo xam ne euh, feeñal seen cër si internet bi moo leen moo leen may succès ci la ñuy ci la ñuy ci lañ leen di ci lañ ci la ñuy yónnee xaalis ci la ñuy amee ay visa tukki ci lañ amee ay oto seen àdduna ci la ci la ci la jaare jaare jaare baax mooy naka léegi nit ñi léegi dañ koy jël léegi ngir euh, bunt bunt pour pour pour euh, pour pour tekki ñu bëri ngay dégg ñu ay influenceur lañu xam nga am na kii bu bees liggéey bees léegi keroog may wax benn waay looy looy liggéey sa métier la la mu man influenceur la influenceur nga moo mel ni ku xaw ma la mooy influenceur mooy ne man ku ñu topp la mu ne moom dañ koy topp moom mu ne naka la ñuy toppee mu ne boo demee ci internet bi am na am na deux cent cinquante mille followers mooy ñoo xam ne dañ dañ dañ ma topp ne ah kon yow followers yu bëree moo la wane yow dañ lay topp daal léegi mu ne waaw donc moom star la donc fi mu toll dem dem na léegi ba ba ba mooy li mu ne wax ci tàmbali da ngay am tuuti nit ñu la topp rek nga def ne star nga waaye dikk mooy doxante te gis nga lii mooy wéy parce que léegi man dama daan gis journaliste yi dama ko sama sama journaliste xarit yi bis bu leen yéen bu yàgg dama daan dem ay conférence internationale ci ci ci ci àdduna bi ñu invité ay ay journaliste parce que jàpp nañ ne que bu dee tas xibaar ñoom ñoo ko dàq ci àdduna bi parce su ñoo ko liggéey ñoo ko jàng ci la ñuy liggéey mais léegi am na ñeneen ñoo xam ne léegi damay gis conférence dañ leen invité waale dañu invité benn benn journaliste invité benn influenceur léegi sax nit ñi léegi ñu ngi dem ba ba ba ba ba jàpp ne influenceur sax mu ëpp ay pexe journaliste surtout fii Sénégal te gëm naa ne kanam la jëm moo tax ma gars yi saa bu ñu def leen dànk euh, métier journaliste mën na mën na disparaître du soxla mooy ma ci dugg ndaxte keroog intelligence artificielle defe naa euh, kii jaar na si euh, ki nga xam ne moo moo fi ñëwoon mais métier la boo xam ne bu ñu defalee ndànk euh, dina dina kii dina dina dina dina disparaître. léegi bi point bi nga xam ne moom moom laay moom laay mujj rek su dee ma indi solution yi ndaxte baax na tamit boo waxee yu yu bëri nga indi saafara yi su ko defee nit ñi nit ñi nga xam ni ñu koy ni ñu koy ni ñu koy saafaraa mooy wàllu wàllu wàllu jàng bi. gis nga léegi lii daf ma ñor trop trop trop te ba léegi gisuma ñu si gësu dañuy gis ni koo xam ne nañ jël xas da sëñ bi nga gis ni ni da koy bind parce que ah commencé wane ko ci ci alxuraan bi mais léegi ñu nga ko ci xas day nit day jël alxuraan bind ko bind ko xam nga nit man bu ma soxlee par exemple kaamil alxuraan kaamil damay dem si ay benn benn euh, alxuraan kaamil su xam ma day yu bari mooy génn léegi du xam nga ne Google am na nooy tapé am na nooy defee sa programme bu ñuy tapé dara. waxuma yaa njëkk génne mais si ñuy njëkk génn si ngay bokk am na léegi si ñi léegi yow boo yàkkamtee nga tàppe kaamil nga bës boo deful naan kaamil bi kaamil bi bii ñëw du nekk kaamil bu baax kaamil bu ñu jël la soppi ko ni leen neexee daal di mën nga gis ñoo xam ne ñu ngi téléchargé ay kaamil si indi yoo kaamil baaxul xasida yi aussi mi ngi si tàmm am am ay nit ñooy jël ay xasida bindee ko lu euh, leen neexee euh, dañ dañ dañ yàq ay ay baat yàq daal ba pare def ko ci internet bi yooyu léegi boobu bu fekkee yow yow yow xamoo xasida yi boo boo ko jàngee da ngay jàpp ne xasida bi yaa ngi koy jàng mooy bisiñ bind waaye bind moo ko bind waaye am nañ ko lu si yàq mais loolu liggéey la boo xam ne ñun ñun ñun ñoo ko def man yàgg naa ko wax fukki at ak ñaar maa ngi koy wax bu fukki at ak juróom ma ni euh, su ma ne yoon bi mooy yoon bi yëpp war nañu am benn benn benn te xamul kan moo si man liggéey benn site internet boo xam ne boo xam ne yoonu murit moo koy moom yoonu murit moo yoonu murit ñëpp laa ci dugal képp ko xam ne euh, sëñ Tuubaa nga yaakaar rek euh, dugal naa la ci yoonu murit moo koy moom nga xam ne bis bu ñu nee tris euh, maam Cerno Birahim boo ko bind boo ko tàppee boo ko amee war nga ko mën a xam nga gis naa léegi fii ngeen di wax ni am na ku fi toog di waxtaan ku am ku am lu mu laaj laaj laaju fiq ak yooyu naa gis naa ko fi léegi loolu ngeen wax ah ay fiq ak yooyu loolu dafa war a egg foofu nga xam ne bu mu amee benn xas benn benn téere boo xam ne ñu ne maam Thierno euh, dara ma euh, maam Thierno Birahim moo ko bind man war naa mën a wala may xam nga xam nga sëñ Cheikhouna sama xarit la man waruma ko woo ne ko sëñ Cheikhouna xaaral whatsapp maa lay yónnee benn benn benn benn benn téere bu ñu ne sëñ euh, maam Thierno dara sëñ maam Thierno Birahim moo ko bind xoolal ma ndax baax na wala baaxul moom bu ko xoolee di ma ne li li wérul bu wéree di ma ne wér na mais bu ma bu ma la xamul xaw ma kenn ku nekk murid nag laa koy xamee donc man loolu li ma jublu mooy dañuy xol képp koo xam ne ci yoon bi nga nekk nga mës a bind dara tàmbali xasida yi ba ci ba ci suuf ñu koy dugal foofu xam léegi yow au lieu ngay dem laaj nit ki yow sa laaj foofu boo ko dugalee foofu man bu ma ko laaj au lieu ma ko yónnee seen Cheikhouna dama ko fay dugal ne kii de dama ko gis ci internet bëggoon laaj wér na wala wérul su ko defee ñu koy jot moom sax mën na bokk si collègue wala ak ak ak ak i moromam xool ko ne la ne lii wérul waxuma sax mais bi ñu ñu ñu tasaare ko ne am na benn téere bu ñu naan euh, maam suñ maam Thiel moo ko bind te wérul su dee àdduna ñu xam ko yooyu ay liggéey yoo xam ne yu am solo la képp koo xam ne tamit euh, gis nga benn léeg-léeg ñu nekk ay ay xista yoo xam ne wérul léegi bëri na léegi ñu bëri ci TikTok bi da ngay dem si TikTok bi gis ay xista yu bëri yoo xam ne dara wéru si danaan kii moo te wérul mais xista yi boo ko bëggee vérifier am fukk vérifié donc loolu loolu liggéey bu mag a mag la mais jàpp naa ne nit ñi war nañ ko war nañ si war nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax war nañ war nañ ci liggéey li may li may li may wax nii léegi euh, su ma ñëwaatee ci ci ci kii ci ci ci ci ci solution yi xëy na li li li ñuy wax yëpp boo ko bëggoon a tënk xëy na du fi xaj waaye yoon yemul si benn euh, bi nga xam ne man jàpp naa ne moo si jiitu mooy ñu xam ne internet bi boo ci nekkee moo xam internet moom reçu moo xam jokkaay jokkookaay yi boo ci xasi bu dugg rek xamal ne am na ay nit yoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi soxla soxla sa information yow wala soxla sa xaalis wala ñaar yëpp donc loolu mooy li ñuy wax cybercriminalité moo laa bëggoon mujjee su ko defee ngeen xam cybercriminalité mooy bépp ñaawteef boo xam ne doomu aadama bi dina ko def musiba di ko di jëfandikoo technologie information communication moo xam mu koy jëfandikoo euh, ci uti comme ordinateur yi ñu am nii ak téléphone yooyu wala mu jëmale ko doomu aadama bi. donc ñaawteef la bépp ñaawteef boo xam ne dafa laal technologie rek loolu la ñu wooyee cyber cyber criminalité donc bu ñu nee cybersécurité ñu dañ ma ko laaj dama koy jëm wàcc wàccee boo xam ne ku nekk daf koy xam cybersécurité mooy bu ñu nee sécurité sécurité lan moo ko tax a jóg mooy euh, mi ngi ne nga nga euh, samba boy ñi sàcc ñi reyee ñii tafu ak ñëpp euh, saafara bi mooy sécurité donc ni mu amee ci ci ci adduna bi nii noonu la amee ci cyber bi mooy ñi nga xam ñoo jaar ci internet bi di di fa di fa yàq wala bépp ñaawte boo xam ne mën na jaar ci internet internet wala technologie rek euh, cybersécurité mooy li nga xam ne moo moo moo moo koy moo koy saafara léegi yooyu léegi dafa dox léegi parce que léegi kii kii dugg di di di këf saagu benn jigéen ci mbedd bi bu fekkee mën na la nax ba nga yónnee ko xaalis ci sa téléphone mais am na li mu bëgg parce que kii sàcc moom na na am na jot dara rek am na solo beneen bi tamit mooy wàllu données bu ñu bu ñu xeeb information yi dugg si internet bu ñu ko xeeb parce que gis nga yi nga dégg ay Google Euh, Apple euh, pas Google Google GAFA yi ngay dégg ni mooy société yi nga xam ne ñoom euh, ay TikTok ñi ngay dégg yëpp mës nga gis ñoo ñuy jaay marchandise mosoo gis de amul si kenn si ñoom ku jaay marchandise ni ñu def ba ba am ba am ba am ba ay milliards boo seetee juróom juróom juróom si ñoom bu ñu tegalee seen seen xaalis xam ñaata la juróom benn junni milliards de dollars mooy seen mooy seen alal ñoom ñu am te amu si kenn ku si jaay marchandise man kan mooy marchandise bi ñun nii la ñun ñooy marchandise bi ñun ñun ñun ñun ñun suñu information lañu la la ñuy jaay ndax da nga dugg fenn gis benn benn benn laafo nga clique nga nga bës ko ah kon ne kii laafo laafo intéressé na ko bu dem gis keneen ko jaay laafo ne ko ah man ne mën naa la booleeg ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy bëgg nañ laafo léegi yow nga nga nga nga nga nga nga fay ko ñoom ñu fay ko ñu jël sa information di ko jox ñooy donc moo tax boo nekk si internet dama gis léeg-léeg dugg si si profil kenn gis mu def turam santam turu waajuram bu góor turu waajuram bu jigéen fi mu dëkk lépp lépp nga def ko si man damay sax tiit nga xam ne information bu ko nit amee rek lu ko neex mën na ci def donc dañuy bàyyi xel information yi nga xam ne dañ ko dugal ci réseaux sociaux yi beneen aussi mooy xale yi parce nekk réseaux sociaux yi ku ku amul 13 ans fukki at ak ñaar see dugg amul droit dugg si mais ñaata xale ñoo nekk si internet bi te ñu si bëree bëri bëri seen seen seen i doom seen i seen i waajur ñoo leen si dugal gis naa ay waajur yoo xam ne ñoom ñoo ubbil compte seen doom gis naa loolu. gis ay waajur yoo xam ne ñoom ñooy defar seen doom ba ñu rafet tegal tegal leen tegal leen euh, kii tegal leen vidéo ñu filmé ba pare ñu dugal ko donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne donc dañu bàyyi xel information yi nga xam moom la ñu dugal ci ci ci internet bi bu ñu ñëwaatee si si groupe yi tamit euh, ñu bëri dañuy fa amul responsable am na responsable gis nga groupe boo ko nee administrateur yow jaaw war am sa fulla bopp la nga xam ne moom nga ci bëgg a koy def parce que groupe am na jafe-jafe bu ci amee si yow la yow mi yow mi ko si yow la ñuy dem parce yow yaa ko yore bu ñu nee par exemple am na ku ci nekk def def musiba bi bu ñu nee xam nga ko nga ne xaw ma ko mais yow yow yaay am problème am na ñu bëri bëri ñoo xam ñu ngi si problème bi waaw foofu la jógee moo yéen ñi administre ay groupe képp koo xam ne nekk na sa groupe na nga xam kan la loolu c'est important bu leen defee ku ku ñu yónnee ni dugal numéro kii dugal numéro kii chaque fois di leen fexe ba ñi nekk ci groupe ngeen leen di xam ba pare tamit ñu présenté wu man groupe bu ma bu ma am bu ne di di ko di ko di am ci am ci ndogal képp ku ci nekk di nga dugg wax yaay kan di nga dugg comme ça man ma ma ma ne diw xamee comme ça bis bu dara amee ñu xam kan la beneen aussi mooy ñu xam ne Sénégal tamit toogul day Sénégal am na loi cybercriminalité bu ñu voté 2008 euh, si code pénal bu bees bi tamit yeesal nañ ko am na loi boo xam ne dafay protéger li nga données personnelles nit sa information yow yaa ko moom bu ko nit di lay def def ci lu yàq sa àdduna am nga droit euh, euh, topp ko Euh, am na aussi loi boo xam ne mooy gérer lépp luy transaction électronique donc aussi police ak gendarmerie am nañu ay ay ay ay jumtukaay yoo xam ne ñu ngi ko teg xam nga mës ngeen dégg euh, division cybercriminalité bu police dégg ngeen ko ak division cyber euh, kii plateforme cybercriminalité gendarmerie yooyu ñu ngi fi nag képp koo xam am nga jafe-jafe yoo xam ne am nga ko internet bi ak ci réseaux sociaux yi bu yàqal sa àdduna wala mu yàqal dara boo fa demee ñoom mën nañ ko mën nañ ko saafara beneen aussi mooy suñu téléphones yi ngeen ñuy bàyyi xel cliquer. bu leen cliquer loo xam ne xamu leen ko waaw cliquer moom euh, bu leen koy cliquer cliquer moom fa la musiba am amee et puis xale yi nga xam ne aussi ñoom ñoo nekk si internet bi ñun ñun ñu leen ñuy waxtaan ak ñoom ba pare ji leen yee ñun suñu liggéey loolu la donc lépp koo xam ne aussi jàpp nañu aussi mën na bu ñu xeeb daara yi parce que xale yi ngay gis nii li xam ci internet bi mag mag ñi xamuñu ko man dem naa ci benn école benn bis boo xam ne benn xale waxu benn programme boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ñooy ñooy liggéey ci sécurité sori ci ñoo ko xam te xale bu ndaw la xam na ko donc xam nga ko mën na tugal àdduna donc nañu bàyyi xel baax a baax luy sel yi nga xam ne moom lañu jëfandikoo tamit ñun ñi nga xam ne aussi ñoo si nekk tamit ñu bañ a naagu parce que léegi ma gis xale nit ñëw ne ma dafa xarañ si waaye xarañ boobu yëpp boo deful ndànk mën na indi musiba donc lépp loo ci xam rek xamal ne am nga loo xamoo ko ci te mën na mën na mën na mën yàq sa àdduna nga xam naa nag li li li duuf si nag bi yëpp xajul si cin li euh, te euh, jëmm jiim euh, jotaay boobu incha allah dinañ si amaat yu bari bari xam naa seen Cheikh am na ay laaj yoo xam ne dina ko am euh, ñu tontu ko su ko defee ñu daal di bi. Euh, jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Thiam ci waxtaan bu am solo wi nga xam ne baaxe nga nu ko xam naa ne képp koo xam ne yaa ngi doon topp jotaay bi tey bàyyi xel waxtaan wi da ci jariñu jariñu gu yaatu lool ndax. thème bi day thème bu yaatu waaye indi na ci loo xam ne defe naa ne ñëpp ñu ko doon déglu ñëpp gis nañ ci seen bopp kon xanaa li ci am solo mooy ñu bàyyi xel bu baax a baax rek waxtaan wi te xam na internet paaka ñaari boor la lees mën a jariñoo la waaye mees na cee loru kon nag nañ fexe ba di ci jariñu di ci jariñe te bañ cee loru te bañ cee lore kon ñu ngi lay sant bu baax Cheikh Ahmad Bamba Thiam yaakaar ji ñu amoon ci yow ba tax ñu jox la tab bi gis nañ ci lu kawe suñ jot kon ci turu muassasatul Wafa bi xooxeel iman ñu ngi lay cant cant goo xam ne amul yamukaay di la ñaanal suñu borom subhanahu wa taala ma fay la ngeen jéeyu xam naa am na ay question yoo xam ne dikk na ci biir jotaay bi lépp ngir bàyyi xel goo xam ne mbooloo mi ñu ngi bàyyi xel waxtaan wi waaye bala ñëw ñëw ci question yi rek ma jàllale programme une bi nga xam ne moo la ñu incha allahu taala suba ji talaata ji ñu ngi dalal sëriñ Abdou Khadir Mbacke mu war a waxtaan ci kan mooy sunu maam aadama ginnaaw suba ci àllarba ji ñu ngi dalal al bay euh, baytoir docteur Mame Balla Sow ñu waxtaan ci yoon yi gën ci càmm jur ak yafal ginnaaw suba ci alxames ji ñu ngi dalal docteur Hassan Diop dermatologue ñu waxtaan ci tawat deret yaram ci àjjuma ji incha allah ñu daral sëriñ Mamor Sam muy waxtaan ci mbirum mbayum senegal ci gaaw bi ñu dalal sëriñ Sidi Ahmad ibnu sëriñ Abdul Aziz Dabaax moo waxtaan ci shuyuuxuna usratun waahida sunu mag ñi benn lañu woon ci dimanche allah ñu dalal euh, almufattis Moxtaar Lo war waxtaan ci njariñul ay teggin ci altine ji incha allah ñu dalal sëñ moodu Kara Samb mu war waxtaan ci naka lees di xereñee ak njiit kon loolu mooy programme mu semaine bi nga ayu bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal kon bu ko defee oustaz Mbow ñu jox ko kàddu bu defee bu jàllale li fi jot a ci ay laaj yoo xam ne ñëw na ci jotaay bi bisimilah. dafa benn sa waxtu waxtu bi waaw waaw benn laaj ngi nii. mu ne naka ngay aare sa téléphone ba kenn du ko mën a yëddu maanaam noo mën a sécuriser sa téléphone ba kenn du ci mën a dugg di ci xam dara waaw. waaw jërëjëf euh, sëñ naa euh, laaj bi laaj bi am na solo euh, lii nag téléphone bis bu nekk ma wax xam naa su ma waxee di ngeen di ngeen di ngeen di <laughs> li bi ci gën mooy bañ bañ am téléphone <laughs> boobu mooy saafara bi jiitu waaye boobu mënta nekk. léegi euh, li nga xam ne moom lay wax saa su nekk mooy jëmmi jëmmi jëmmi téléchargé téléchargé application boo mënti téléchargé yi xam nga lu ñu may amul si ànd bi lépp lépp dañ koy jaay ñi nga xam ñooy def logiciel yooyu noonu ñoom dañu am njaboot di liggéey di fay courant di fay di fay emploi di fay lépp bu ñu nee lii dañ koy maye amul lu ñu maye am na lu des si ginnaaw léegi li may wax ñëpp mooy lépp loo xam ne soxlawuloo ko sa téléphone bu ko ci def lépp loo am soxla ko sa téléphone rek bul bul ko ci def beneen bi aussi mooy mise mise à jour yi nga koy def mais mise à jour pas buñ la yónnee léeg-léeg nit nit saay-saay bind benn programme ne la mise à mise jour la nga bës ko rek fekk moom moo ko bind dangay dem ci ci jëmm euh, téléphone bi kee ko defar nga dem ci système jël mise à jour nga defar ko man loolu lay wax ni chaque fois éviter di lu ñëw nga cliquer ko sa téléphone boobu mooy jiitu beneen aussi ngeen def ay ay ay mise à jour ci ci téléphone yi ñaare daal mooy mooy li nga xam ne daal boo ci boo boo ko defee lu bëri bëri bëri di nga si mën a mucc. jërëjëf kii dafa laaj ni mu ne seetaan yenn mbir yu araam yi seetaan yenn mbir yu araam yi lan la mën a yàqal nit ki ci ak dundam maanaam ci téléphone di ci seetaan loo xam ne lu xaraam la loolu lan la mën a yàq ci eh, nit ki ki koy seetaan. xam naa boobu dama dama dama la koy delloo rek xam naa li nga xam ne moom lañuy moom moom lay indi déglu déglu araam ak di ko seetaan ci télé bi nii wala di ko déglu si si rajo yeeg yooyu daanaka la mu la mu yàq foofu daanaka lay yàq si fii rek waaye bii li ci yokk mooy du du ay ay du yem ci ci borom ndaxte mën nga ko def sa téléphone juum di manipuler daal di koy partager mu egg fépp wala nit ñi dañu jox seen doom seen seen téléphone yi. wala xale yi di ko manipuler bu daal daal di koy juum daal di koy partager fépp donc musiba bi dëgg dëgg dëgg bi ma gis ginnaaw li euh, ngeen ci mën a wax ci wàllu diine li mu ci tere yow sa bopp euh, mën na laa lor ndaxte mën nga jum partager ko wala sa waa kër di man téléphone partager ko wala nga yóbbu téléphone ñu koy réparer fenn kooku manduwul daal di ko jël télécharger ko ba pare partager ko. jërëjëf kii dafa laaj mu ne dama dégg ñu ne daa am piis bu ñuy monter ci nit ki. maanaam piis bu ñuy noonte ci bopp nit ki mooy loolu ndax loo ci xam. loolu yàgg na loolu loolu taxul lu yàgg na ndaxte am na ay dëkk yoo xam ne mu dëkk yi nga xam ne dañuy dañuy bëri na loolu loolu loolu lu am la lu am la am na ñu ko ñu koy def ndax technologie moo moo ko waral te ñu si pour sécurité moo tax sécurité bu ko topp bu ñu bëggee topp ay ay kilifa am na dañ leen ko defal pour di leen mën toog fu ñu mën nekk ñu mën ko xam.